sëñ bi lan nga commencé di ñaan. on se prépare waa plateau dix secondes. aywa mi ngi ñaan. Mm. téléphone yëpp nekk na téléphone yëpp nekk na silencieux ah. pare na. bee moom def naa ko mode avion beneen bi dañ ko def. direct pare na. waaw pare na waaw. signal bi pare na. bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah mi ngi tàkk bismillah waaw defal ko télé bi. waaw ni ñu koy dugalee mu ñu wax. waaw ñu koy lancé. bu ñu koy lancé. buuba. waaw signal bi dinañ ko am fii pour lancer télé. buuba non pour bu ñuy def annonce télé. buuba. yaa ngi ne naa ko defalee annonce bi. buuba. buuba annonce télé bi buuba annonce télé bi. annonce télé bi annonce télé bi nan lañ koy dugalee. waaw waaw waaw. annonce télé bi. waaw déedéet dafa télé bi. ñoom télé bi nan lañ koy dugalee jeunes yi ñoom comme genre publicité bi ñu koy dee. kaay kaay kaay demal kaay kaay. grave de grave. nañ démarré nañ démarré. nañ démarré. Jeune TV rek la am. ñu ngi direct Jeune TV ah. ñu ngi direct si Jeune TV ah. international alors ñu ngi avec le PDG directeur général Baye Cheikh Omar Diop en direct sur Jeune TV en direct Facebook TikTok ak euh, li nga xam ni moo di YouTube. ngeen suivre ko waxtaan bu am solo tey la ñuy waxtaanee fii donc euh, bu ko kenn rafet ah restez ngeen ñëw ñu waxtaan ak Baye Cheikh Omar Diop ñu waxtaanee xam-xam di ngeen ci jëlee jàngat bu bari bari bëri ama ama am solo bu bu baaxee ñu lancer c'est la gère Hmm? ne ko mu ñaanal ba nga tukki. Ousmane sëñ bi nee na dégg na la ñun dina la ñaanal bu baax incha allah dañ koy wax leen seen soxla rek da leen ko fajal incha allah ma fàttali leen ñu ngi en direct ci TikTok Facebook ak li nga xam ne moo di YouTube. avec le PDG directeur général Baye Cheikh Omar Diop IGMTV aussi international télévision bu bees la mën ngeen ko suivre via euh, les réseaux am na aussi tamit Fayda Baye TV ñu ngi en direct mën ngeen ko suivre tamit euh, sur les réseaux aussi mi ngi TikTok mi ngi Facebook mi ngi YouTube te si plateforme yëpp la ñuy defee en direct ngeen am ko Abdoulaye waaw Abdoulaye incha allah incha allah dinañ la dinañ la invité incha allah bu hmm? doon dafa bëgg a ñëw eh, teewee émission yi. Ah, <laughs> <laughs> am na keneen Abdallah Laye nee na mu ngi lay suivre depuis Maroc. incha allah yal na ko yàlla may. incha allah barke yow Moussa Sama barke Seydou Ibrahima. jaag yàqul ma. ah. ñu ko jaag yàqul ma. ah waaw. kooku moom Kaolack la. Aliou waaw. kooku moom yaa ko Paris Paris la. alhamdulilah. Abdou Sall Ndaw Facebook nee na ndokkale sama papa gudd fan ak wér si ma fàtte si ñaan xam ci biir émission bi bu fàtte waale de da waxaale gars yi kon moo lay live bi ci ci biir quoi ci page bu Facebook YouTube ak yooyu lay ziare ngay dippee France Zoumtong ne Cheikh bi bëgg naa jàngi France année prochaine incha allah Zoumtong mooy mooy na ko des de yéen la ñuy xaar. c'est bon. yéen la ñuy xaar. man man maa ngi ci taw bi. waaw cinq cent. non mënoo ko gis. yéen a ko lan de. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillah rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yaa himmatu cheikh udari lana bi hada almahdari waltaati fihi bi nadratin taati lana bi sawar alhamdulilah gannaaw bañ santee yàlla julli si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu umma islamique bi yépp mboolem fu jullit nekk ci àddina ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel di nuyu mbooleem ah, fu jaam yàlla nekk eh, ñu ngi lay nuyu di la ziara di la ndokkeel di am mbégte daa iman ci di teew ak yéen ci seen émission yu am solo di wax ne eh, tey nag ñu ngi fii ci eh, GMTV international Euh, di télévision boo xam ne macha allah àddina yëpp ñu ngi koy suivre ak euh, émission yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def euh, di am mbégte bu baax a baax a baax ci di dalal ay boromi xam-xam yu am solo boromi xam-xam yoo xam ne ñi ngi dimbale jaami yàlla yi si di leen laaye biir si wàllu l'islam di leen laaye biir aussi si li nga xam ne moom mooy société bi Eh, di am mbégte nag bu baax a baax a baax di wax ne nag namoon nañ ko ñun ñëpp bokkoon nañ ko namm rawatina ci ñi nga xam ne ñoo ko daan teewlu ci fi nga xam ne ñoo koy ci fi nga xam ne moom mooy eh, YouTube bi ñi nga xam ne ñoo koy teewlu ci Facebook bi ñi nga xam ne ñoo koy teewlu ci TikTok bi tey eh, di am mbégte bu baax nag ci dalal ko ci fi nga xam ne moom mooy ci dalal ko ci fi nga xam ne moom mooy. Euh, euh, GMTV international euh, ci seen émission xam-xam dëgg-dëgg tey ñi dara borom xam-xam bu mag a mag mag a macha allah borom xam-xam boo xam ne ñëpp ñu ngi naawloo xam-xamam ñëpp ñu ngi sàkku xam-xamam te ñëpp ñu ngi barkeelu xam-xamam muy Serigne Cheikh Omar Diop àddina yëpp kenn laajteetul ko di ànd ak yéen ci direct nag ci fi nga xam ne moom mooy GMTV. en temps di ànd ak yéen ci direct ci fi nga xam ne moom mooy YouTube euh, GMTV di ànd ak yéen ci fi moom mooy euh, seen euh, Facebook Cheikh Omar Diop ànd ak yéen ci fi nga xam moom mooy YouTube médecine tradipraticien Cheikh Omar Diop ànd ak yéen ci fi nga xam moom mooy TikTok Cheikh Omar Diop Cheikhou di wax mbokki jullit yi ak ñi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yi Euh, rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy teewlu sëriñ bi daa iman si émission yi nga xam ne mu xam-xam yu muy joxe si fi nga xam ne mooy plateforme yu muy joxe xam-xam yi si base yi di leen wax nag à partir d'aujourd'hui képp koo xam ne yaa ngi bëgg di teew lu sëriñ bi rek na nga ko kar fi nga xam ne moom mooy GMTV international YouTube boobu bu ngeen demee yéen ñëpp na ngeen fa abonné Facebook yéen ñëpp na ngeen fa abonné ndax ay xam-xam yu am solo yoo xam ne dana ko fa wàccee aussi ci li nga xam ne mooy firi gént yéen ñëpp nañ leen ñu ngi leen di euh, yëgal ne à partir de tey képp koo xam ne bëgg na di seetaan Cheikh Omar Diop na nga dem nga karta si fi nga xam ne mooy GM TV international boo ko bindee si bi da nga jot boo ko bindee si Facebook bi da ko jot incha allah si émission gént yi ak émission xam-xam yi nga xam ne mu ngi koy mu ngi koy joxe tey ñu war a waxtaane thème bu ama am am solo boo xam ne yàgg na fi lool borom xam-xam bu ne bind na ci kàngaam bu ne wax na ci euh, euh, ñooñ tasawuf bu ne dégg nga gëstu na ci ñii bind nañ ci ñii gëstu nañ ci waaye gannaaw dem nañ ba euh, liñ ca bëgg ñi ñi ba léegi dëgg-dëgg mbir moomu nga xam ne moom mooy thème biñ war a waxtaanee muy dëgg taw tawhid tey moom la ñu sëriñ bi bëgg a waxtaanal ñu ñëw ci moom pour mu leeralal ñu lan mooy taw tawhid ndax fan yee passé ci ginnaaw gis nañ mu defal ñu waxtaan boo xam ne ci gis yàlla gis yàlla euh, mu bëri mu bëri woon ay réero yu ci amoon yoo xam ne ni ku si nekk ñii ñi ngi wax yàlla duñ ko gis ñi ñi ngi wax yàlla dañ koy gis mais gis nañ ci leer bi nga xam ne leeral na ko ci domaine boobu ci wax xam-xam boobu muy gis yàlla ba képp koo xam ne nii yaa ngi ci doon werante rek xam nga ne yàlla ku ñuy gis la giteŋaas mais ci ban anam anam boobu nag moo jaaxaloon ñëpp waaye ba mu defee waxtaan macha allah ku dem si fi euh, vidéo bi da ci gis waxtaan boo xam ne ni ku ko rek moo xam nga xam moo xam nga réer mais amal rek te mën a dég déglu su boobaa boo dégg xam ne yàlla ku ñuy gis la ku ñuy gis la giteŋaas mais ci ban anam anam boobu moom leeral na ko ba mu leer moo tax tey waa te e, GMTV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 yaa himmata sayqi udrina bi hadal mahdari wal tahtifi bi nasratatna bi safar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw boo xamee ne sant nañ yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu nañu mbooleem koo xam ne mu ngi ñuy teewlu ci waxtu wii ak ci barab yu fasantikoo yi nga xam ne ci lañ ñuy teewlu nuyoo bi nag ñu ngi ci jiital kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci lislaam fi ci réew mi di ci teg yi nga xam ne ñoo nekk ci aada réew mi waaye di ci jiital al xalifa xalifatu ham fi madinati kawlax fi madinati barham mi Cheikh Mouhamadul Mahi ñu koy wax xaadimul umma te moom mu tuddee ko boppam ñu ngi koy jiital ci nuyoo bi di ci teg moo leen yi nga xam ne ñu bi waaye di ci teg ki nga xam ne mooy al imaamul akbar imaam Cheikh ibnu Seyd di ci teg mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak bitim réew Sénégal ak li ko wër àddina wërngal képp ñu leen di nuyu nuyub islaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum boobu nag ñu ngi ci nuyu mboolem sénégalaise ak sénégalais fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu lay nuyu suñu jotaay yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci facebook bi ak youtube bi ak li nga xam ne mooy tiktok bi yaakaar naa am nañ ci ay mbokk yoo xam ne ay xarit ak ay wëllëre yoo xam ne euh, tey wax dëgg yàlla yàgg nañ ak ñoom waaye am na ci kenn koo xam ne faw ñu ñaanal waajuram muy tukkulóoru baay waajuram bu jigéen ku wàññeeku barki démb euh, wax dëgg yàlla ñu koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko yàlla jéggal ko xare ko aljana bi ñu koy jaale ay mbokkam di ko ko jaale moom yëpp nekk ku bëgg a bàyyi nekk jàmbaar ku bëgg xam-xam waaye seex am mbégte ak contentement bu rëy mm-hmm. ci plateforme bi nga xam ne ci lañ nekk tey mm-hmm. di forme boo xam ne forme bu kawe la mm-hmm. ci maanaam télévision tey mu dalal ñu muy GMTV inter international bu fekkee ne da ko bëgg a suivre ci YouTube bi da ngay def GM espace TV e- espace international nga gis ko logo bi nii la mel boo ko gisee rek dañ ko gis ñu ñu bëgg di seetaan ci YouTube bi dinañu mën a am foofu Facebook bi dinañu mën a am foofu mhm. en temps bu ñuy topp ci suñu live bi mhm. luñ ci waay soxla ci wàllu ay leeral rek incha allah dinañ ko ko baaxee incha euh, wax dëgg yàlla kóllëre yi nag kóllëre bu bees la mag ñoom mhm. mu bëgg incha allah ñu xam ne waxtaan yi ñuy waxtaan yi am na ay jaami yàlla yu doon naxtu di wax ne lii dañ ko war a yóbbu télévision ñu ko seetaan ndax dimension xam-xam bi foofu la toll alhamdulilah rabbil alamin yàlla émi dimbale nañ ba ñu mën ko andi ci plateforme boobu ci télévision pour ñëpp di ko suivre waaye du tey tamit dinañ continuer waale si suñu ay live yi ñu doon def nit ñi nga xam ne yëguñ loolu ñu mën ko di ko fi yëgee ndax am na ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ masaa yi nga xam ne dinañ koy laaj suñu ay jotaay ñu koy leeral dañ ci juumoo dañ ciy gàggantikoo dañ ciy fàttalikuwante ñu ñëpp te loolu tawfeex la boo xam ne yàlla moo ñu ko wërsëgal ci quraan ci wàllu fuhóom yi ci nekk nga xam ne alquran yàlla moo ko def mu nekk lu mag lu ka nekk téere boo xam ne dafa ñëw pour pour ñëpp pour fépp pour fawu tey dafa war a dëppoo ak mboolem jamaano yi léegi bu ñu ko firee tëj ko rek bu boobaa dafay mel ni jamaano yi war a ñëw bokkuñ ci te loolu man melawoowu nanguwuma ko ci alquran nanguwuma ne alxuraan dañ koy firi rek tëj ko kenn dootu ko fireeti mm-hmm. loolu d'accord ma si mm-hmm. li ma d'accord mooy kenn ku nekk li nga dégg ci alxuraan ngay wax mm-hmm. ndax loo xam ne ci yàlla la jógee benn jaam bu nekk da ngay ñëw waaru ci am nga bay li ci des keneen ñëw bay ko ndax man mii di wax tey baqara ba naan si mën naa koo firi te baat bu ci nekk mën naa koo firi beneen déggin boo xam ne kenn mësu koo wax te ku dem ci balaaxa da fekk mu baax da ngay dem ci man fekk mu baax nga dem ci usul fekk mu baax nga dem ci luxa fekk mu baax nga dem ci mbooleem jumtukaay yi ñuy nattee xam ne kii mu fassir la boo ko seetee koy fekk doo ko mën a yàq doo ko mën a weddi ndax doo am benn jumtukaay boo ko yi ñu tëral ne moom la ñuy nattee Qur'an wala moom la ñuy nattee kuy firi Qur'an ne foo nga wattu ko mm. soo ko indee boo ko ci nattee dafay fekk mu jot sëkk mm. kon xam-xam la boo xam ne yàlla mooy wane ne mm. sama jaam yi duñu ma rëddal waaye man yàlla maa leen rëddal yàlla nag moo rëddee noonu alquran yàlla dégg-dégg gi ma ci may loolu jagleeg yàlla la te war nal fadala bi yadillaahi yuuti man yashaa wala rasul fadalin azim fadlullaahi yàlla mooy seet jaam bu ko neex mu boole ko ak moom hmm. yàlla boole na ma ak moom hmm. ba nga xam ne tey ngëneel gii ma am ci alquran hmm. tey lu la ndax tey boo demee ci alquran firi nañ ko ci arab firi nañ ko ci français firi nañ ko ci anglais firi nañ ko ci wolof firi nañ ko ci pulaar firi nañ ko ci làkk yëpp ba tëj nañ ko léegi baat bu nekk wax nañ la muy firi wax nañ sababu nuzul bi wax nañ lépp li nga xam ne moo ci war waaye tey ku déglu man ni may defee tafsir ci wàll quraan danga dégg lu bees loo xam ne dafay gën a dalal xelu jullit bi waaye du indi safaanam dafay gën a jege jullit bi boromam bi waaye du ko ko soril dafay gën a yombal bi gën a xóotal ak déggam waaye du ko jax-jaxal kon dangay gis ne taw tawfiix la ci firim yi waaye li ñu li ñuy bañ ci firiwaat ko mooy nga wax lu uti li ñu waxoon mu nekk lu lënt loo xam ne duñ mën a weddi li nga wax mm. ba pare duñ mën a saxal leneen mm. moo tax am na ci yenn ba ayaat yu bari mm. bu ñuy firi maak yow dama koy tëb ndax damay bañ firi ko mm-hmm. mu indi jax-jaxal ci ñoom mm-hmm. te duñ ko mën a weddi mm-hmm. ba pare lañu xamoon da leen rëcc leen léegi damay bañ taxawaay am moo tax yi nga xam ne ay ixtilaaf daf caa nekk wala ay xawlaani nekk ci yooyu laay leeral loolu mooy saabi mutasaabihaat yi ci nekk yi nga xam ne am na ay xawlaani mm-hmm. yooyu su ma ci essayé mm-hmm. dama koy leeral mm-hmm. pour nit ñi xam ne wax dëgg yàlla lii amul lënt waaye lii lu leeral la loolu mooy xam-xam bu jëriñ xam-xam bu bu dee jëriñ la buñ départee daw kilomètre yow waroo ñëwaat nit ñi ne leen kaay la ñu départaat fi ñu toll ci kilomètre bi nga leen di acca nañu continuer boobaa li ñu amoon du réer te li ngay indi day nekk lal ci kaw lañ amoon mm-hmm. mu nekk lumière nekk leer mm-hmm. nekk njëriñ mm-hmm. nekk lu ñu mën a jëriñoo man ci melo woowu laa laay indi alquran waaye ni ma ko yàlla déggalooxee am na ci aayaat yoo xam ne tey su ma ko ñu bëri seen ay ndëggu dana rëcc te seen ay pas-pas dana yàqu te daanaka benn lay doonaat par rapport ak ci lañ nekkoon rek waaye ni ñu koy waxee ak ni ñu koy indee dafay am ay ixtilaaf yu ci xaw a nekk Euh, da ngay gis na alquran mm-hmm. wax yàlla la mm-hmm. kalaamullaahi la mm-hmm. te yàlla mooy suñu boroom borom la boo xam ne màggaayam dégg na dayoo tey boo xoolee tey dañuy wax ne yonent yi ay maxsum lañ man rek maa mën a taxaw wax ne amul benn yonent bu nekk maxsum yaa ngi dégg te soo ma laajee lu tax nga ne amul benn yonent bu nekk maxsum mën naa laa wax lu tax ba pare mën naa sa xalaat ne yonent yëpp ay maxsum lañ ndax baatu maxsum mm. dafa am lu ko tax a jóg mm. ñiy wax ne diw du maxsum diw maxsum la mm. léegi leeral ba jotewuñ ci dëgg la tey tey masalan suñu sëriñ si amul ku ci nekk maxsum dëgg la te ñoom ñëpp ay maxsum lañ te loolu boo demee ci Ibrahim ñi nga xam ne yàlla may ne ko mu ci yëpp junñu na ko boo demee ma ngay wax fa xattawul sayfi aqwamu wa alyaqu minal muridi xenn wal xatal kon dafay jàngale ne taalibe bi mm-hmm. sëriñ bi maxsum la ci moom mm-hmm. waaye sëriñ bi du maxsum ci nabbi yu ab nabbi yu ab wëlli yu du maxsum ci moom dëgg la yaa ngi dégg mm-hmm. yaa ngi dégg maa ngi dégg bu baax donc ab wëlli yu ab nit kese ku dul wëlli mënta nekk maxsum ci moom ndax nabbi yu wëlli yu moo ko sut maqaama ndax ki la sut mu la mën a jubbati dëgg la waaye ki la féetee suuf mënut laa jubbanti mm-hmm. loolu moo tax ma ne sëriñ si duñ maxsum mm-hmm. waaye maxsum lañ ndax ki la jàngal la dëbb mm-hmm. ki lay jox ki lay ki ki ngay taatanal kooku mënoo koo wax ay njumteem waaye moom mën naa wax seen njumte dëgg la yeneen yi ñooy tëbb wali yi kon wali yi mënuñu nekk maxsum ci kanam yeneen yi dëgg la waaye yeneen yi ay maxsum lañ ci yoon ci nabi yi ci ci maxsum leen ci jaami yàlla yi mhm. waaye mu mënuñu nekk maxsum ci kanam borom bi dëgg la kon ñu teewee ci kanam yàlla yonent yi mënuñu nekk ay maxsum mhm. loolu moo tax man a yonent yi ay maxsum dëgg la kon damay wax ne ne naa wax lépp mhm. teg ko fi te gars yi duñ ko leeral ba pare mën naa koo leeral bañ xam ne nekk ah kii li mu wax dëgg la dëgg la dëgg la loolu moom laay wax nag ci xeeti xam-xam yoo xam ne xam-xam yu xóot la yu jar a bàyyi xel ndax nit dina taxaw wax ne diw maxsum la man mën naa ñëw taxaw nga la diw du maxsum dëgg la waaye mën naa taxaw na la du maxsum na mm-hmm. tey mën naa indi laay alquran mm-hmm. yoo xam ne mooy dëggal mm-hmm. euh, ne du maxsum la ndax lu tax soo demee ci alquran da nga dégg waskur kitaaba Moussa uh-huh. innahu kaana siddiqan nabiyan ku yàlla yónni nga dem ba dikk mu ne la sa sa sa sa risaal mbat na maanaam yow sama li ma la yónni woon baax na kon amul njuumte. déedéet njuumte amul foofu amatul ku koy corriger. déedéet kooku kooku maasum la. dëgg la. alxuraan moo ko saxal. ba hmm. tax ku wax ne ku dul yonente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi du maasum. Hmm. yow xamoo li maasum. dëgg la yaa ngi dégg. dëgg la kon képp ku alxuraan saxalal ne. Mm-hmm. ko koy corrigé koy ubbiwaatee. kenn mënatu ko waskur uh, kitaaba Mariam. Mariam waskur kitaaba eh, eh, Ibrahima. Ibrahima waskur kitaaba. Idrissa Idrissa. Uh-huh. ñun ñëpp yàlla dafa kase seen kase. Mm-hmm. kaana sadiqan. saadiqan nabiyan muxlisan yëpp yëpp yàlla wax na ko mm-hmm. kase. ci ñoom ne maxsum leen. dëgg la léegi nag. Mm-hmm. lu tax duñ ay maxsum. Mm-hmm. ndax kenn rek. Mm-hmm. moo jagoo ñu ne ku mat la. muy borom bi yàlla rek ngay fekk. mu dajale mboolem mbir yi. te dara du manqué ci moom. ku dut yàlla. soo ñëwee ci kanamam jaam ngay doon. dëgg la te koo xam ne yaa ci kanam ah. doo oote foofu mukk ak mat. dëgg la moo tax bàyyi mu ne yónni saa salaam. bu demee ci kanam borom bi. nekk fa jaam mooy tiitaram. su ñëwee suñ kanam. nekk sang mooy tiitaram. dëgg la kon gis nga ko. loolu nag xam-xam la yoo xam ne mhm. dafa leer mhm. jege mhm. nekk luñ mën a partager ak jullit ñi gën leen wan leen ne yëf yi ilal amam yëf yaa ngi ci kanam euh, leer la ku yàlla yi may xam-xam leer la dëgg la Euh, yàlla koy may jàmm boo xam ne sellal nga sa xol mm-hmm. te te dëggu ci jublu ko mm-hmm. bu wéree rek mm-hmm. mu may la ci ay may yu bëri dëgg la loolu moo tax nag tey suñu jotaay tey bi macha allah euh, jotaay bi weesu woon waxtaan ne no gis yàlla gis yàlla mu am solo mu am solo ba nga xam ne ñi fekkee woon jotaay bi ñëpp gisoon nañ yàlla keroog waaw mu gis ñu gis ne yàlla yi ñuy xarit noonu googu waaw dëgg la nekk de dëgg ndax yàlla dañ koy gis jege na waaye jaam yi xam ne fa lañ koy xoole hmm. foofu moo indi. moo indi problème rek dëgg la. mais bu ñu waxoon gars yi fi ñuy xoolee yàlla. Hmm. ku fa xoolee rek gisee hmm. gisee fa yàlla. dëgg la kon. loolu nekkul lu jafe. dëgg la euh, gis yàlla mën naa nekk. waaye. nuñ koy gisee tamit ki ko gis. moo ko mën a wane. dëgg la ndax suñ ne suñ ne GMTV. Mm-hmm. ñu ne am na ñu ne télé bi waaw gis naa ko. Mm-hmm. ki gis télé bi. waaw mu la wan ban plateforme ngay dem. waaw pour mën faa gisee télé bi. kon gis yàlla. Mm-hmm. mu la mën a wan yàlla. dëgg la wax naa keroog ne képp koo wax ne ko wan mu ne waaw diw nee na. waaw ko demoon nga seeti yàlla nañ àndi seeti yàlla. ñoom ñaar képp koo ko wax na ko wan ma yàlla. waaw mu ne la diw mu ne la diw nee na. waaw. wala téere sàngam nee na. waaw ne ko maag yow nañ ànd dem seeti yàlla. ndax yàlla du wul lu far. déedéet déedéet du wul lu jege la. léegi te mi fi. Mhm. yow yow mi fi nekkul sax. Mhm. yaa ngi mën a wane sa bopp si sa ñàkk gi. waaw moom mi xam nga bëgg koo utul ku koy saxalala ku koy dëggal. ku kon yow lañ war a seet. no ñu ànd dem wéy. moom moom ñu la laaj. Uh-huh. waaw moom laay wax képp ku laaj ana yàlla. Mhm. muy wax rek di nat nati. na seeti parce que lii ku la ko laaj tey da nga naan portable. parce que da koo gis. te daf nekk. la moo tax nga mën ko wane. kon nag yàlla. te yàlla fi gën a te lii. Mm-hmm. te moo gën a jege lii. te moo gën a fay lii. te moo gën a jot te moo gën a mat. dëgg la buñ koy muy lënt. c'est parce que kiñ koy laaj moo xamut. Ah, loolu nag moom mooy su waxtaan mm-hmm. tey nag euh, buntu bi ñuy war a waxtaanee. am na solo. Mm-hmm. borom xam-xam yëpp bind nañ ci. dëgg la Eh, borom xam-xam yi nekk ci suuf bind nañ ci. dëgg la mboolem eh, borom xam-xam yi àddina yi. Hmm. bind nañ ci masala bi ñu doon ko war a macha allah eh, wax jaam yàlla tey thème bi lu mu doon. dëgg la dugg ci jotaay bi incha allah. ma macha allah nuyoo bi am na solo trop. ba léegi yéen a ngi ci seen télévision GMTV international ñuy ànd tey ak Serigne Cheikh Omar Diop Cheikhou waa àddina yëpp. Euh, xam ko macha allah ci xam-xam bu am solo gis nga nuyoo bi mu nuyoo ci li nga xam ne moom mooy thème bu ñu war a waxtaanee balaa may laajte question bi mooy euh, xam-xam ni alquran bi nga xam ne ah firi woon nañ ko ba ñëpp dëppoo ci même firi yëpp yow nga ñëw rek tijjiwaat ko tijjiwaat alquran firi ci ay laaya firi ci ay saar yoo xam ne képp ku ko dégg da wax gongo dangay wax. Euh, macha allah da ngay gis ne sax firi moomu da nga ciy dundee ci biir alquran loolu lan moo waral loolu am xam-xam la ndax ñi fi jaar borom xam-xam la bu bind téere am fit la wala te ñi jaar amoon nañ ay fit waaye lan la lan moo waral loolu nga ñëw rek tijjiwaat alquran fekk tëjoon nañ ko ñëpp firi woon nañ ko ba ñëpp dëppoo ci firi bi nga xam ne amoon na fi. waaw alhamdulilah. mu wax naa ko ci sama biir wax léegi yow man fadala bi yadillaahi yu'tiihi man yashaa mm-hmm. wallaahu zul fadli aziim xam nga alquran yàlla mooy maye xam-xam mm-hmm. te yàlla li mu yor du jeex mm-hmm. ku tëj yow yaa tëj waaye yàlla tëjut dëgg la ku pare yaa pare yàlla pareegut dëgg la ku dem yaa fi jógee waaye yàlla ak fii ku tëj may yàlla yi yow sa maya tëj waaye mayam tëjagut dëgg la yaa ngi dégg kon nag yàlla euh, buntu yi yim am di ci joxee jàmm yi dañoo bari dañ di xàmmee nag dëgg man loolu yàlla moom ma ko may mm-hmm. alquran bi nga xam ne moom la ñu yàlla yón euh, moom la yàlla yónnee woon yónent si yàlla moom saa salaam sallallahu alayhi wa sallam euh, jibril indi ko ko mm-hmm. alquran moomu mm-hmm. man moomu fiil boppam man alquran laa dajale damaa dajee jëmee alquran dëgg la maanaa boo gisee may wax ne àddina bi ñuy eewoo maa ci gën a dégg alquran waaw waxuma maa gën a mokkal de dëgg la booy seetaan sama vidéo sa léegi la ma wax sa jële laayee yàq baat ya dëgg la ba yow yaa ma ciy dimbale kon lu muy jàngale. waaye su soo demee ci sama firi. amul benn mbindeef. boo xam ne mën na taxaw. mu firi dara. mu ñëw ne ma lii da ngaa cee juum nii. kenn ñemewu ko kenn. dëgg kenn mënu ko yëg te boo dikkee. mën naa laa wan juróom-ñaar fukki firi. yoo xam ne benn bu ci nekk. mosoo koo dégg ci mbindeef bu dul man. dëgg man yàlla ma ko defal. man naa firi alquran gi may firi alquran. tey amul kenn ku ci mën a corriger benn xaraf. Mhm. xaraf laa waxuma baat xaraf. Mhm. nit du ko ci du ko ci firi du ko ci corriger. te loolu taw fex bu yàlla mayal. Mhm. donc am na baat yoo xam ne ni ñu leen firee sax baaxut baat yi xam ne ca à jàppalaan. waaw am na ayaat yoo xam ne seen taa seen sababu nuzul. waaw dañ dañ caa juum am na ci taa aaya dañ caa juum gi mooy. waaw dañuy yóbbu baat euh, wax yoo xam ne. taarixu beneen beneen beneen barab la ñu yóbbu ko ci taarixu taarixu keneen te loolu mën naa ko ci wane mën naa ko caa wane ci biir alxuraan ci biir alxuraan moo tax man man balaa may mën a kontaan mm-hmm. maanaam ñu géewal ñu maanaam ni borom xam-xam boo xam ne moom óol na boom ca ci alxuraan ñu toog man moom ñeen ñu waxtaan ci alxuraan waaw moom mu ne du nii nii la comme ça mm-hmm. man ma wan ko juróom-ñaari du noonu nii la allahu akbar yaa ngi dégg loolu loolu man ñi nga xam ne defuñ ko ci plateau ñëw nañ ko def ko ci man ci sama kër. Hmm. ñooñu xam nañ ne man li may wax dëgg la ndax li ma mën a wax ci lu dul plateau. Hmm. sañ ma koo wax ci plateau. allahu akbar yaa ngi dégg. boo gisee bàyyi. Hmm. yemalewuma ko kenn. c'est parce que dama koo déglu. déglu ni mu firi alquran. ñu bëri déglu naa leen ni mu firi alquran. waaye wax naa ko kay sama biir. sama benn man na ñu bëri maa ngi leen jam. xam nga jam jam ci ñuy tafsir waaw xam nañ luy jam jam ñoom xam am nañu bëri maa leen jam tegal leen mhm. loo xam ne ñoom seen ñoo ko tafsir ñoo ko firi mhm. te man xam naa ne lii ñu firi mhm. bu ñu indee luxa bi rek luxa arab bi kese rek soo leen ko tegalee ñu seen bopp yi dëgg la yaa ngi dégg balaa ngay dugg ci maani rek loolu beneen affaire la dëgg la waaye loolu yëpp dafa sori li may wax daal mooy alquran ji euh, euh, yaatu na géej la amul tefes waaw ku ko wutal frontière. sa tefes nga sa tefes nga egg waaye egg ko tefes alxuraan dëgg la nga géej gaa jeex. fekk yow yaa egg sa tefes. Eh, tigi waaw sa sa ndox suuf dëgg la da ngay yaakaar ne géej gaa jeex. Hmm. fekk sa tefes nga egg. dëgg la gi jeexul. yow fi nga ni nga jublu. Hmm. dafa jublu ci sa tefes mm. boo eggee ci sa tefes rek da nga yàpp ne géej jeex dëgg la loolu moo tax na ñu bëri tëj yaakaar na tëj gi tëj daa mm. ngi dégg mm. yaakaar ne affaire bi jeex na fekk jeexagul dëgg la waaw euh, euh, euh, am na ci ayaat yu bëri de yoo xam ne yu ma leen ma leen nii waaw benn bu ci nekk mën nañ koo leeralaat waaw mu gën a leer leer na baax na waaye mën naa gën a leer a leer waaw mën naa gën a ndax jam ju nekk yaa ngi gis leneen mu ngi xew leneen mi ngi xew te teewul la doon xew a ngi xew mais a leer dama koo jàng uh-huh. jàng soo laajee ndax fit la uh-huh. am naa fit dëgg la ndax ko xamul fit waaw gi may def tañoo déedéet déedéet boo ko defee gone bu ndaw lañ leen waaw dëgg la de di daal alxuraan kenn mënatu ko yàq uh-huh. gën koo leeral mu mën naa xam waaw waaye yàq ko waaw mënatu ta xam dëgg la moo tax maa farat naa fi kitaab min seen yàlla na ko waaw yàlla wax ne wa nazzalna mina al-qur'aan maa huwa shifaa'un innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu laafizuun moo tax yàq ko mënta ne eh. waaye gën ko leeral mën naa am hmm, dëgg la dëgg la macha allah yàq ko kenn mënul ko waaye gën koo leeral daa iman mën naa boo ko bëggee yàq xale bu ndaw lañ lay booleel dëgg la waaye wax la mu ne la aa ah, ah. allahu akbar <laughs> macha allah si xam-xam bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy jox eh, mbokki jullit yëpp Euh, rawatina ñi nga xam ne. waaye bu njëkk bu ñetteel fàtte fàtte woo ko de yaa bëgg a dagg yaa bëgg a dagg de. waaw waaw bu ñetteel mooy may la may. Ah. xam-xam gi ma xam ci alquran. waaw ak jagleeg yàlla la yàlla ma ko may. Mm-hmm. yàlla moo ma may ma dégg alquran. te ku mënalul yàlla ah. waaw xamal li mu koy noppale ko ci tëddal nelaw. danaa ko dégg ba may dee tam kenn du ma ko gën a dégg. feeg maa ngi dund. ah mu ngi noyyi ci kaw suuf. waaw. maanaam ku ma gën a digg alxuraan du ma ko bokk ak du ma bokk nit ci kaw suuf ñuy nooy fekk moo gën a digg alxuraan. loolu jagle la. jagle la ma a dégg alxuraan. ma gën a mokkal. waaw du a dégg alxuraan. fekk maa ngi noyyi. waaw du am. ah loolu de jagle la jagle bu kawe sax. hee allahu akbar seen télévision GMTV rek na nga koy gis. xam-xam yu mel nii ak yu leer yi ak yu kawe yi fii rek nga koy gis tey ñu ànd ak Cheikh Omar Diop war a waxtaanee tawhid dëgg-dëgg tawhid tawhid borom xam-xam yu bare bare bari waxtaanee nañ ko euh, ñii kenn ku si nekk bind nga si ay bind ñii def nañ ci seen gëstu ngir seen dund tey ñi ñëw pour bëgg nga leeralal ñu tawhid comme nit ñi leeralalee woon li nga xam ne mooy gis yàlla tey bëgg nañ nga leeralal ñu ko tawhid dëgg-dëgg tawhid bi nga xam ne àddina yëpp ñu ngi koy wër ba yàlla wàccee alam bi ba léegi wala ba yàlla bindee nit ñi ba léegi ñu ngi wër tawhid ah, ba bésu tey bii nii wali yàlla yi wax nañ ci xutbu zamaan yi wax nañ ci borom ah, ah, xam-xam wax nañ ci ba ci sax Cheikh Tidiane Chérif Cheikh naa xam ne Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu wax na ci tawhid muy wéetal yàlla tawhid mooy wéetal yàlla arab mooy wax tawhid olof mooy wax wéetal yàlla léegi nag dëgg-dëgg wéetal yàlla lañ bëgg tey sëñ Cheikh Omar Diop Cheikhou nga nga nga nga nga xamal ñu lan mooy dëgg-dëgg tawhid alhamdulilah aousubillahi mina seytaani rajim alhamdulilah li nga laaj am na solo lool hmm. ndax laaj la boo xam ne ñi ci bind ay téer du jeex hmm. waaye laa Cheikh Naama Tiyaan Serif boobu loolu cax la woon ci wax bi mu wax waxu Cheikh Naama Tiyaan waaw cax la bu Cheikh Naama Tiyaan Serif cax ay taalibeem di seet ci taalibe yi kan moo dégg cax bi du laaj cax la cax la cax la ndax lu tax eh. daf na bu fekkee da bëgg a wéetal yàlla waaw yow nga nekk fi waaw wéetal gi nekk fi yàlla nekk fi ana wéetal gi du laaj cax la cax la waaye waxi góor yàlla yi moom moom wax waaw fa indi ni ana waaw ñoom seen wax daal ñoom seen wax la waaw mu ne moom waaw waxi góor yàlla yi waaw mu ne moom nga dégg ko ndax moom mooy moom xam na ne daal moom mooy moom. dëgg la ñoom ñooy ñoom. seen wax seen wax waaw moom li mu xam la am. loolu mooy maam bi. la léegi nag Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. laaj ni ko gaa yi ni ko gaa doon seetee. dañ koo njaas maanaam dañ dañ koo kii. dañ dañ koo dumbul maanaam seen bi dafa waroon a jëm nii. waaw. yow mi jigéen nee ñëw di ko seetsee nii loolu moo tax duñ ko dégg. Ah, kay loolu moo tax nag. waaw baax. dëgg la am na ñu bëri. dañuy dégg. buñ déggee. ci jàng. dëgg la leen waxee. ñu takkee noonu. rek dem. dëgg la duñ seetantal. te dabur duñ ko def ndax yàlla moo la dox na la. yàlla laa yàlla dabaroon na Qur'an am xalaa quluubihim aqfaaluhaa duñ def tadabburul Qur'an wala tadabbur ci xam-xam. dëgg la. yaa ngi dégg. Mhm. ndax lu tax. Mhm. ki la jàngal su la xasee wax rek yow loolu ngay takk. dëgg la sa bopp yow dootoo xamati. Mhm. benn benn dégg-dégg wala boo xam ne yow yaa koy itteewoo ci sa dégg-dégg bopp wala sa ittee bopp. pour xamee ko ci jumla bi wala ci masala bi ci wala ci xam-xam bi ñu lay wax. dëgg la. loolu mooy tax. bu bëri bu ne la joxee xam-xam fa xam-xam ba em rek fa em. dëgg ko duñ ko wér. dëgg la tawhid. baat mooy li wax wéetal yàlla. Mm-hmm. waaye lan mooy wéetal yàlla d'abord. dëgg la. xam nga jaam bi. Mm-hmm. ak borom bi ñoo fi nekk. Mm-hmm. léegi borom bi. moom moom jaam dëgg la. yaa ngi waaw jaam war a xam ne borom bi moo ko moom. te moomeel gi mu ko moom. waaw bokk ko kenn. baat bi waaw tawhid waaw du jaam bi moo koy def baat bi mi ngi fii tawhid mi ngi fii mais jaam bi koy nangu jaam bi nangu tawhid ok tawhid du lu ñuy def hmm? du lu lu ñuy nangu la waaw ndax yàlla dafa wéet waaw ci moomeel gi moom jaam bi ak midi bi jaam bi war a xam ne yàlla moom mbindeef yi waaw tey da caa wéet mu ngi mel ne sax ci ma koy misaal tey si sa jabar waaw tawhid jabar la méngool tawhid waaw yow tey sa jabar ji nga takk mhm. gis nga ni nga ci wéetee waaw est-ce que nangu nga ko bokk ak man kenn man maa yoo ñoo bokk nekk bàyyi waaw gis sa mbëggeel bi mu egg ci man dëgg ndax bëgg nga maa yoo ñu bokk jabar ah, déedéet sa euh, euh, euh, beneen frère bi nga sa doom gën a bëgg bëgg nga mu bokk yow sa jabar déedéet sa xarit bi nga gën a bëgg bëgg nga mu bokk yow sa jabar déedéet loolu nañ ko wéetee. waaw yaa ngi dégg. waaw nit ñëpp nangoo ko nangu ko. waaw ci ne kii faara la waaw nga ni nga wéetee ci modèle bi. waaw loolu la ñuy wax jaam bu nekk na ko nangul yàlla ci jaamam yi ak mbindeef yi. nangu ne yàlla. mu wéetee na mu wéetee ca moomee la mbindee bi. waaw loolu ay tax taw tawhid laa wax ne. waaw tawhid moom. ah waaw. moomee la yàlla ci jaam bi. waaw yàlla nekk gi nekk yàlla. waaw moom jaam bi. waaw nga xam ne yàlla mooy seen moroom waaw mooy borom mbindeef yëpp. waaw yaa ngi dégg. Uh-huh. mooy suñu borom ñun ñëpp. Mm. gis nga moomeel boobu mu ñu moom. Mm. ni mu ci ni ñu moomee. waaw loolu mooy tawhid léegi jaam bu nangu loolu. waaw yow yow wéetal na nga yàlla ni mu ci ni mu moomee. waaw ndax léegi soo bëggee jugee bi waaw pour wéetal yàlla ah. loolu du tawhiid loolu du wéetal yàlla loolu fanaaw la jax yàlla la ndax soo fi néew nooy wéetalee borom bi te faw nga wéetal tey faw nga nefi faw nga nefi taw fi ne taw fi nefi yàlla nefi te dem wéetal soo ko am léegi nu ñu koy defee nag moo jaxaloon gaay yi euh, lii mooy contraire bi nga koo dëpp moo tax la ñoom dañuy bëgg a jug tawhid jug ca wéetal am waaw kay léegi nag fanaaw la loolu fanaaw la loolu jeex ci yàlla la fanaaw la mooy da nga am li am am bi nekk dëgg waaw loolu mooy fanaaw fanaaw ak tawhid ak wéetal bokkul bu wéetal yàlla ne yàlla mi ngay wéetal na fi wéetal nga wéetal na fi te wéetal gi loolu lu mën a amee moo jaaxal moo jaaxal gars yi nag loolu mooy jaaxal gars yi nag ndax yàlla ni mu wéetee ci moomeel moomeelam gi waaw gi moom bindee yi waaw ni mu ci nga xam ne dug ko mës a bokk kenn. waaw kenn du mës a wéetal yàlla ci moom moom gi moom bindee. waaw wéet boobu ñu ci wéetee. waaw loolu lañuy laaj jàmm bi ndax nangu na ko. waa lii moom jege na di. biñ ci jotee. Ah, yàgg na fee yow de da laa yàgg na fi de. yàgg na fi de. yàgg na fi de waaw kay. wéetal jaam bi jaam bi wéet gi mu moomee la yàlla ci jaam bi. ni ci yàlla wéetee ni ci jaam bi wéetee. ni ci yàlla wéetee waaw ni ko jaam bi nangoo rek. moo tax bu yàlla bu jaam bi nangoo nag kenn moomu ko ku dul waaw. yaa ngi waaw te kenn du mës a bokk moom di ko yàlla moom yàlla du ko a bokk ak kenn. waaw ni yàlla wéetee ci moomeel boobu. waaw loolaay tax wéet. te te te kenn mënu ci dara dara dara dara dara dara. wala ñu naan tawhid tawhidul afhaal yi. waaw tawhidul sifaat yi tawhidul asmaa yi. loolu yëpp gis nga yàlla ci rububiyyatu nga. waaw ah. gis nga ni mu ci neeti. waaw nga xam ne yàlla bokkut ak jaam yi ak kenn moom yàlla ba mu moom moom lépp. dëgg la yaa ngi dégg. dëgg la te lépp moom la ñuy xam. gis nga di mu wéetee ci ni moom maanaam mu ngi mel tey ñu jox la un milliard. waaw nga moom ko yow dong. waaw te bokkoo ko kenn. dëgg la gis nga ni ngay wéetee ci moomeel ak milliard. waaw loolaay tawhid loolu lay yaa loolu lay loolu nag du yaa koy def da nga ko fay fekk lay laaj nangu nga ne yàlla moom moom lépp te lépp lu yàlla la yàlla. te xam-xamu tawfiix dëgg dëgg dëgg. voilà loolu lay tax dëgg dëgg dëgg dëgg. <laughs> ah waaw lii maa ngi doog a nangu. Mhm. ne Seexu Tijaan. waaw cax la defoon cax la defoon. cax defoon waaw kay nu mu mën a nekk yaa ngi fi. waaw tawfiix dëgg yàlla ngi fi ala tawfiix. ah ilaa illallah. léegi yow boo xalalee sa baat sa baat baaraam bii. waaw di wax baatu seede yi. waaw loolu kalimatu lan la. ah tawhid gis nga ko. ah nga ne gis nga ko. Ah. <laughs> kalimatu tawhid. ah lii neex tawhid da ngay gis ne foofu yàlla kot kot kot kot ah, ah moom moo koy feeñ. pour jaamu ci dëgg. ci dëgg jaamu ko juri jëriñ. ñàkk jaamu ci jur loolu illallahu lu yàlla. gis nga nga dem wéetee ci loola. waaw wéetaay woola. dafa sax ci. wéetaay yaa ko saxal. donc da nga sax ñu ne ndax lii. soo ne waaw rek bokk ci daayiratu liman. ah lii na yomb na de. yomb na yomb mu ngi ci jotee. waaye laaj bi laaj ban jotee waaye laaj bi yàgg na fi. waaw yàgg na yàgg na mais gars yi li nga wax nag li nga wax nag dafa kii parce que parce que li nga wax ni gars yi nii lañ defoon. waaw yow bi nii la def waaw kay dañoo dem nii dañoo jugee njax ak. parce que ñoom bëgg nañ fi jóg. waaw wéetaay jug fi. waaw yàlla def yàlla def ñu foog ne loolu loolu ñu ne léegi dañuy wéetal yàlla noonu déedéet yàlla bind na jaam bi xam na. waaw kenn mënut a wax ba jaam bi du xam. dëgg la yaa ngi dee te yàlla xam na. waaw te kenn mënut a wax yàlla ñàkk. déedéet léegi te yàlla foo mu wéet ci xamam gi. waaw lu dina ko wéetale. yaa ngi fi wéetal bëgg a wéetal yàlla ngi fi loolu jax la. loolu te jaam yi war nañ cee mën a nekk. déet te jaam foo mu wéetal yàlla ndax la lu wér la. dëgg la foo mu wéetal yàlla. dëgg la. foo mu yàlla foo mu wéetal ko. dëgg la kon wéetal gi ngay wéetal yàlla. mooy xam gi ngay xam ne. waaw moomeel gi moom rek rek la. waaw amul ku mu ko bokkal. waaw wéetaay booba. waaw ngay nangu. waaw mooy wéetal la. ah kaw teef kaw teef kaw teef lii de képp ku ko dégg. alhamdulilah ngay wax. alhamdulilah rabbil alamin ci bañ ko xamee. ñun de bokk nañ si ñu ko doon wër. tawhid ndax toujours ñu ngi bëgg wéetal yàlla. ci wéetaayam bi nga xam ne ni moom lay xelloon. moom ba duggee sa biir néeg boo ko wéral toog sa dal sa xelam da xalaat. ne ñu baa nga la wër nga koy gis. waaw si yaadaa baa nga fi kurus gaa ngi fi nga ne da ngay wéral te wéet gi wéetaay wéetaay baat baat biñ baat baat wéetaay bi. waaw lañ xamut fu mu xaskanu ak fu mu moom fu mu fi paraasam. ndax cax la cax xam nga cax day jege. dëgg la loolu nag cax nag faw moo tax ma ne la xawlaani. xawlaani wala laaj buñ fi baax. bi maanaam muhkamaat yi nga xam ne mutasaabihaat yi muhkamaat yi mutasaabihaat yi yëpp mën naa ko firi ah lii de fireeku na moomeel ak yàlla ci jaam bi waaw wét gi mu wét ci moomeel gi loolu mooy tawhiid mooy tawhiid léegi jaam bu loolu jaam bu loolu rek bokk ci daayiratul iimaan moo tax mu ne mu ne mu ne allahu waliyu lazina amanu waaw léegi waaye nag xanaa wër gu métti gi ko wëlli yi doon wër moo tax ñu indi si tur yi bëri yi. waaw góorgóorlu ga la góorgóorlu ga la xam nga yàlla moom du neel a def. déedéet waaw loo góorgóorlu a dama ci ceeb may waaye xusu si yëfe nag am borom. dafay am borom. tey <laughs> yàlla allahu akbar. foofu léegoo-léeg nga gis gaa yi teg ci benn laaj. waaw. di wër ko ko tontu. di wër ko ko léegi loolu liñ ci nam. Mm-hmm. mooy seet ci laaj bi. waaw ku ko dégg. ndax laaj boobu dafay am lu am lu ko waral am ñu laaj ko lu laaj ko ñu laaj ko ba ko fi ah, ñëpp danañ maanaam daal laaj wër laaj waaw kay ah, ah tawhid de alhamdulilah rabbil alamin moom fu waay neex fu neex waay rek toog nangoo ko fa tawhid dafa ko ma la waaw fan nga mën a ban pàkk nga mën ne waaw boo xam ne yow ko ne ban pàkk la ah, xanaa boo ko xoolee ci xel rek ci li ñu xenu maanaam te logique. waaw mooy mënta ne. mënta ne kay. su fekkee ne sens bi ba gaa yëgoon. waaw du mën a ne foofu foofu fanaaw nga fay te boo taw yi soo fa jugee ba bañ a àtte ci te faaw nga wéetal yàlla. te faaw nga wéetal te yàlla jaam ñee ko a yéew. yàlla lu wéetal moom dina yàlla moom wéet na ci wéet na ci moom la wéet na ci moom bële. allahu akbar. loolu mooy tawhid. cey allahu akbar lii de kéemtaan la de. Ah, kéemtaan la de lii de GM rek nga koy gis. waaw ah, GM TV. GM TV international ñoo am ñoo am. ah laaj bi tontoo ko fi. taw xeet ñi tontoo taw yi. ci fii ci te GM TV ànd si ak Cheikh Omar Diop. Cheikhou lu waral Cheikhou. Cheikhou euh, xam nga man rek maa xam sama turu dëgg. ñu si des yëpp tur ñu ne tuddee lañ dëgg. ah bii ñu ne. tey maa ngi laaj ñëpp ku nekk na ma wax turam dëgg. tur man de Fadel laa. mais donc mooy bi ñu la tuddee. mais sa tur sa tur nga ñëwaale xam nga. tur bi ma ñëwaale ah déedéet. Cheikh Tidiane nee na képp ku ko xam. waaw koo woo mu wuyu. man rek maa am sañ-sañ ku ma woo mu wuyu ma. xanaa bu ma jàngal loolu. ah ah bu ñu paree émission bi yàlla nga waxal ñu naka la ñuy xamee suñ turu dëgg-dëgg. xam naa waa waa GM TV téléspectateur. li may xam nga li may wax man. waaw. soriwul ak ba weddi. waaw wax ko ne yow ni nga tudd rek dëgg-dëgg. wax nga dëgg dëgg dëgg damaa tudd rek. am ay yenn at tur bi nga tuddee waaw. boo ko tas tur bi nga tudd. ci yàlla. lii daal fii rek nga koy gis. <laughs> lii daal fii rek nga koy gis. dëgg dëgg GMTV. GMTV daal. GMTV daal ku ne bëgg naa mel ni GMTV. macha allah laaj boobu de tontu bi leer na de te ruq yëpp de dugg naa ko. Hmm. waaye gis naa ne leeral nga ko. ruq yi ruq ruq yeeg ruq ruqaan yi nga xam nii de bu nit ki toogee si biir nag dina ne waaw kon léegi nu ñuy def fii waaye léegi fan laa war a mën a toog kon pour wax ne man nangul naa yàlla ne moom rek moom mooy buur. moom moom moom moom moom lépp moom moom moom moom moo wéet ci moomeelam gi nga xam moom moom moom. Mhm. loolu moom fu neexu fu neexu waaye toog waxee ko. amul barab amul saa amul amul waxtu amul waxtu. loolu mooy tawhid kon. ah la woon dugg ci néeg ne da ngay wéetal yàlla. waaw ci yëpp ngay taw ngay wéetal yàlla. parce que boo xamee ne ñu toog ñëpp yàlla seen borom te bokk ko bokk ko kenn. waaw yàlla ñu wéetee ci moomeel googa. waaw loolu la yàlla bëgg. loolu la yàlla laaj jaam yi ndax nangu ngeen maa moom lépp. man de bokkuma ko kenn. man de nangu naa loolu la loolu yàlla gëm <laughs> man nangu naa ko. man de <laughs> allahu akbar. yaakaar naa loolu kenn ku bañ ku gëm yàlla koy da nga nangu ne moom lépp. dëgg la de kon loolu mooy tawhiid dëgg. cey allahu akbar cey Cheikh Cheikh Omar Diop Cheikh ah laaj bi de am na solo. waa waa TikTok. Eh, waa TikTok Cheikh Omar Diop. bu leen ma mel nag. damaa jëng nag. waa léegi maa ngi GMTV de. GMTV léegi. ku bëgg di déglu émission yi ak xam-xam yu am solo yii nii na nga dem ah? na nga dem na nga dem GMTV nga nga xam ne dégg nga waa ji mu ne waxtaan bi na nañ a xóotal <laughs> ah, <laughs> ah waaw ba léegi damay bañ ma xóotal ko nit ñi duñ ko dégg waaw ma waaw waaw loolu tamit de ndax nii nga ko nii moom ku xam ak ku réer ku jàng ak ku ku jàng ku jàngam bu sori ak ku jàngam soriwul dana ko xam ndax yàlla moom jaam yi nga nangu ne yàlla moom moom moom jaam ñëpp te moom moo wéet ci moomeel googu. waaw loolu kenn nit moom lu mu doof doof doof. day xam ne yàlla li moom da caa wéet bokk ko kenn bokkul ko kenn. voilà loolu day woyof lool bu gënee mun na gën a xóot nag. bu dee sëriñ bi dem nangu na ñu gën koo xóotal. ah bu ñu ko bëggee xóotal ku bëgg ñu xóotal ci léegi la ñuy dugg. Eh, ah, ah kon loolu ku ko bëgg da ngay déplacé wu. moom sëriñ bi li ñuy wax li ñuy wax ci penc. waaw laay wax ci penc waaye li ñuy wax ci biir néeg bi ma ko wax ci penc. ah macha allah baat bii nii. waaw téere yi dañ koo bind moo tax wax ko waaye bu dul woon luñ bind du ma ko wax. kon am na beneen. a eh, naa la juróom-ñaari yoon maanaam juróom-ñaar fukki yoon. ah kon de ñun waa VMT. alxuraan dafa am na juróom-ñaar fukki firi. benn bi la gaa yi firi tëj téere yi juróom-ñaar fukki firi laay bi ne juróom-ñaar fukki firi ko war firi. benn la gaa yi firi tëj téere bi. tëj téere bi te liñ firi sax dañ mën nañ ko war a firi waat. macha allah macha allah loolu am na solo am na solo te leer na te te ñëpp kontaan nañ ci te ñi si wéetoon ñi nga xam ne réeroon na leen ñëpp mu wax dëgg fa yàlla gindeeku nañ ci rawatina man nii te man nangu na te waa GMTV yi ñoom ñëpp nangu nañ di wax ñëpp da ngeen dem ci YouTube ba te da ngeen dem ci Facebook ba aussi mun ngeen ko am ci euh, yeneen plateforme yoo xam ne nii mu ngeen fa am GMTV bientôt incha allah da ngeen koy am. ci satellite bi incha allah ngeen seetaan ko si seen saal yi si seen télévision yi ak fépp ngeen ko bëgg a seetaan incha allah seen léegi nag dañuy dem ci ci weeru gàmmu ndax gàmmu tamit bëri na ay wuute yu si am bëri commencé di def gàmmu ba tey nit ñaa ñii ngi naan gàmmu war nañ ko def ñii ne waruñ ko def waaye daa iman ñi ngi gis gàmmu ngi gën a màgg fañ ko daa wér dee sax dem nañ ba muy makka léegi ñi ngay gàmmu te gàmmoo gën a màgg te ba léegi ñu ngi dégg ne gàmmu bidaa la léegi nag bëgg nañ tey aussi nit ñi leerale lay gis yàlla ba ku fekkee woon jotaay boobu jour waxuma sax nga nangu ne yàlla lañ ko waaye jour boobu sax da mujj gis yàlla te beneen bi mooy euh, tawhid tey tey gis nga ni nga leeral si tawhid moom ñëpp nangu nañ ne yàlla mooy buur te yàlla mooy borom jaam te ñëpp xam nañ ne yàlla rek moom mooy kii moom te moom rek moom mooy buur mooy borom mooy borom jaam yi léegi nag eh, noonu tamit bëgg nañ ko ñu xam ko ci gàmm ndax ñun ñëpp ñu bokk noppaliku ci naan ñii naan biddaa naan du léegi nag bëgg nañ ko leeralal ñu gàmm ci boppam ndax biddaa la bu dee bi la nga wax ñu lan muy wéral ci ne gàmm bi la bu dee ne du biddaa eh, eh, sunna la wala farata la nga wax ñu it ana lan mooy di dëggal ne gàmm farata la ñëpp dañ koo war a def incha allah rabbi bismillah li ma tontu ci loolu hmm. laaj lay doon ndax yonentu yàlla maama sallallahu alayhi wa dañ koo war a fàtte ah déedéet ah kenn war a ko fàtte daa iman wa sarmata dañ ko war di fàttali yonent dañ war a fàttali war laay yonentu yàlla Muhammad dafa ñaaw fàttali yonent dafa ñaaw wala ah, waaw eh, beneen affaire yonent bi fàttali ko dafa ñaaw ndax ma ne ndax fàttali ko yonent bi dafa ndax dafa ñaaw. Ah, da ngay. damaa laaj ah, pour ma. déedéet dama lay laaj ndax fàttali ko yonent bi na wala ah, na. war na daa yi mën wasaar ma. bu fekkee war na. waaw ma lay laajaat ndax fàttali ko yonent bi dafa ñaaw ndax dafa fàttali ko ko dafa ñaaw. déedéet déedéet. waaw léegi lu rafet. waaw ci lislaam. dañ koy dàq. ah déedéet déedéet. baax dañ koy dàq. déedéet. waaw léegi lu baax lu yonent waaw kenn waru koo de lu baax lu yonentu deful. waaw war nañ ko def kay. lu baax luy lu ba lu rafet lu yonentu deful kenn war koo def. Ah, war nañ ko def kay. waaw léegi dama lay laaj. waaw fàttaliku. waaw. ndax kenn gën na cee yee yonentu yàlla maama saasam. dégg nga ke yonentu rek lañu war a moom daa lay lor moom rek sax lañu war a fàttaliku. waaw léegi dama lay laaj bu fekkee fàttaliku yonentu bi dafa war. waaw dafa dafa war na wax. daa iman wasaar na kon saxal nga yow yaa mën a laaj jàmm faral nga ko saxal yow ci sa man lay laaj tey dafa mujj ëlbati ko fi mu doon voilà la bëgg a xamal ne laaju dof la maanaam ñi wax ne yonent bi waaw gàmmu bi daaxara ñooñu ay dof lañ ñoom ñooy dofi diine ji mooy ñi nga xam ne ay mbaam yu sëfti mbaam yoo xam ne dañoo yëpp ay téere waaw ñooñu la xam-xam ba ci téere bi du leen amal njëriñ ñooñu ñooy werante gàmmu bi daaxara wala du bi daaxara ñooñu ay mbaam lañ yu saf ay téere maanaam yonent yàlla ma sallallahu alayhi wa sallam ay jaam daje. waaw di ko fàttaliku. waaw ñu ne yonent dafa ko woon. loolu ay dofa koy wax. loolu dofa koy dof dëgg dëgg dëgg dëgg la de. balaa ma lay tontu xam-xam. dama lay indi logique. xam nga xel la nit ñaam. waaw yàlla dafa yor naa daa balaa tax a xeloon. dëgg la xanaa bu ngeen xelu. ah ok yàlla dafa ñu waxoon ne am xel ba pare d' abord balaa ñu wuti xam-xam nañu xam xel xel d' abord mooy dëkkuwaayu xam-xam. dëgg la léegi bu fekkee yonent bi. waaw fàttaliku ko. waaw war na. war na ndax am na benn digg bu ñu war a fàttaliku ci moom. amul de. waaw bi mu juddoo fa la commencé. waaw ci nit. waaw dem ba ba ba may génn àdduna. waaw diggante boobu am na lu ñu ci war a fàttaliku. déedéet amul de. war nañ caa fàttaliku lépp noonu. lépp kay. ba ni mu daan àndee soxna mi sax dañu ko doon wax. waaw waaye léegi lu luy problème nga am. gàmmu lan la. ah. léegi juddu yonent yi bokk ci dundam. bokk na ci. Euh, rayaate bokk na. bokk na ci. alquran dina wàcc ci moom bokk na ca wala bokk ca. bokk na ca xale bokk na ca wala bokk bokk na ca waaw léegi li problème bi lan la. ah réer la de. lii réer la de. waaw problème bi lan la. lii réer bu fekkee ne yonentu saa salaam bi mu juddoo ba ni mu jeexee gi ba ni mu génn àddina. waaw amul dara luñ ci luñ ci aaye pour ñu fàttaliku ko. waaw waaw léegi bés bi mu juddoo ku ko ne man de bés bi mu juddoo laay fàttaliku kii ne man de bés bi muy bés bi mu doon xare. waaw. ñun buñ dem buñ demee Makka. waaw yóbbu nañ ñu ci jabal jabal Uhud. waaw ñu ñu doon wax saxaaba yi fii lañ doon. fii lañ daanoo. waaw waaye léegi ku amul sensu dem ba foofu waruñ ko wat nettali. war nañ ko ko nettali kay. dafa am heure bu ñu koy war a nettali. waaw. am heure bu ñu koy nettali. dafa am ay bés yu ñu tànn ci ko war a nettali ko tànn na ngeen bés def nga def nga lu bokk ci diine ji. déedéet loolu dafa am dëkk bu ñu koy nettalee ne dëkk bi la ñu war a dem nettali ji ko fa ku fa demoon def nga bokk ci diina ji déedéet loolu bu amul fenn léegi ku amul dem ba Makka ka ma demoon man fekk ca jamono woon ñu ne fii la saxaaba bi mu waxee na leen yéeg leen ci kaw montagne yi waaw yaa ngi dégg waaw ci jamono xaw ma ne xam naa tur sax eh, eh, eh, bu leen fa wàcc waaw ñu ñu fekk leen dab leen rey leen waaw rey ca juróom-ñaar fukki saxaaba waaw léegi ñooñu noonu waa amul chance dem ba foofa kenn waru la ko nettali lii mooy de dama lay laaj rek ndax li mu kenn war ko nettali benn julit. daa iman war nañ ko waaye ñu jugee Màkka bu ñu demee bu ñu jugee Màkka. Uh-huh. bu ñu ñëwee Sénégal dañu doon daal bu ñu fekk seen jéem bu ñu nettali loolu ñu gis Màkka bu ñu ko de ah déedéet déedéet waaye ñun bu ñu demee Màkka bañ bañ gisee loolu bu ñu ñëwee di ko nettali Sénégal dañu koy aaye. déedéet déedéet ndax yonent mos naa ñëw Afrique di ñu nettali xare ba. dégg nga loolu du du bidaa kon bu fekkee ne li ñuy wax mooy bidaa loolu loolu loolu bidaa. loolu bidaa bu mag la sax. ah bu fekkee ne loolu mooy bidaa kon kon loolu bidaa ñi ñi dem màkk bu ñu ñëwee. waaw ñoo war a tëj seen génn. dañoo war a noppi kay. ah lu tax ñoom ñu ku bëgg a xam demal sa bopp. demal sa bopp waaw. te ñun buñ demee bañ demee màkk buñ dikkee wax nañ ne gis nañ saxaaba ya fañ leen fañ fañ leen suul gis nañ ma kaaba ga gis nañ lii gis nañ laa gis nañ laa loolu ay nettali la ay nettali la de loolu kaaba ga fekkee demal yonent kaaba ga ah tey jabal Uhud fekkee demal yonent aha kay saxaaba yi dee ca ca ca xare xare xare Uhud fekkee ko demal yonent aha kay waaw du dañuy dem ba fekk leen fa tiim leen gis leen ñëw di ko nettali waa Sénégal loolu dafa ndax yonent loolu defoon na ko di ah mais est-ce que nekkul tamit euh, bés yi nga xam ne dañ koy tànn ne bés bi ñuy toog nit ñi di ñu wër ñi nettali ñetti ñi nettali euh, tukki yi waaw bés yooyu yan bés la kan moo ko rëdd ci ban ci ban téere lañ ko bind ñu fa lañ ko jànge ñu koy def fu ñu ko roye ah dem bi royin ko ci kenn. aywa xam nga loolu sunna la wala wala eh, loolu du bidaa de. lan la kon sunna la war a doon lislaam am na lu nekk fu am na fu muy waaw ah, ah, yonent da eh, léegi yow soo demee sunna la waaw léegi nag mu judd. waaw duñ ko ah ma ne gars yi ñoom dafa mel ni dañoo comprendre lu de. ne dama leen laaj rek bokk ci li taarix ñu noonu yonent bi. waaw ñoo <laughs> bëggul ñu nettali dara yonent. loo xam ne buñ ko nettalee yonent bi nit ñi amee nit amee ci mbëggeel yonent bëgguñ ko. dëgg la. cey. ah. man daal fekkee ne wér na. waaw ne ay mbiram dañ koy tere. waaw ku ko te tooñ la loolu d'accord na bu fekkee ne nangu nettali ay mbiram dagan na damay laaj ndax ci dundam yonent bi dafa am luñ ci war a wax ak luñ ci war a noppee. bu dee xam na nañ ma wax lii de kenn waru nettali ci wala fii la dalee ci bu ñuy nettali yonent bi comme bi nga xamee ne eh. nañ fa dalee ñi. xa bésu eh, gàddaay ga. rajo ah, kii gàddaay ga waaw bésu gàddaay ga. nañ nattee seen bésu at. Ah, ah, at mi nañ fa nañ fa déparé. waaw bu dee ci dundab yonent a daa tàmbalee nettali. waaw li ku nettali juddu boobu foofu. waaw dugg ci bi daa bokkuti ñu xam. balaa ñuy wax balaa ñuy wax dajale nit ñi. di di di dajale góor ak jigéen yi dafa xaraam ak yooyu dugg su ko def ak yooyu yooyu balaa ñu ci dugg. waaw nañ nekk wax nit ñi liñ dajale nit yi di ko def lan la ba pare. ñu laajte ndax loolu ci xaq yonent bi daf caa jomb. Mm-hmm. ndax daa jomb ci yonent bi dundam ñu nekk ñu fàttaliku ko. waaw ndax dafa jomb dafa dafa baaxul. déedéet loolu kee baaxul bu fekkee ne baax na. Uh-huh. léegi ndax dañuy wax ne fii ngeen war a commencé ci nettali dundam. Uh-huh. ndax am na ca. déedéet loolu kay yonent war nañoo ko dégg si ñoom. waaw léegi yonent mën na mën nañoo nettali yëppam. mën nañ ko kay loolu war la sax. voilà léegi nuñ koy defee moom yonent da ko jàngale. déedéet déedéet. koy defee. Ah, loolu kay dañ leen koy laaj ñoom. ah kon kay jeex kon comme ñoom mënuñoo wan wan melaw yi ñu koy defee. ñun duñ seet melaw yi gën a rafet ci suñu aada réew. ak melaw yi gën a rafet ci suñu xel. ñu defee ko. war na ci yonent ñi di fàttaliku ko mais waxul fenn ne nii lañ ko war a fàttaliku. waaw léegi waxu ko. waaw léegi yow waxal ni ñu koy defee bu fekkee yaa xam diine ji yoo leen ko yónni euh, bi daal ni ñu koy defee daal ak koy defee baaxul tànnal ñu bés ak heure comme ne nekk gi moom rafet na. waaw yaa na. du yaa rek kenn war ko fàttaliku nga xam aay wuñ ko. déedéet te ñi ñi ñi gàmmu. waaw buñ dajee foofu loolu lañ demal ci kese ji. taarix bi moo mën ci suñ ginnaaw mën ci youtube bi ak facebook bi nga dem xool ñi gàmmu lu ñuy def ba xam suñ bàyyi lañ fay wax wala suñ maam yi waaw léegi loolu loolu ñu fay wax noonu ci ci téere yi ndax am na benn téere bu wax ne fii lañu war a tàmbalee ci fàttali bi yonent bi déedéet déedéet amul kenn ku. dundoo dañ ko rafetlu. ah kay ëmb gi ko yaa ëmboon dañ ko rafetlu. ah kay ah kay bu ñu gisee ko xamal kay. waaw waaw bés bu mu juddoo. waaw seen xarbaax yi fa feeñal dañ ko war a fàttaliku. dañ ko war a fàttaliku. bi muy nekk ndaw. waaw xarbaax yi man feeñal ba tuddee ko Mouhamadul Amin te yónnee ko. waaw loolu dañ ko war a dagg sax li ma dañ ko war a fàttaliku. dañ ko war a fàttaliku. waaw bi ñu ko yónnee rañaan ñu rañaanee ko alburax ñëw jël si ko ànd ak euh, euh, jibril ñu dem dikk loolu yëpp dañ ko war a dagg sax li ma dañ ko war a fàttaliku. dañ ko war a fàttaliku ñaari rakka yam julli ca baytul maqadis. waaw di dafa yonent yi. waaw yaa ngi dégg yi. waaw léegi loolu dañ ko war dagg sax loolu ci la bokk. loolu yëpp dañ ko war di fàttali. xare yam doon xare saxaaba yi ñu koy reyal ay saxaaba muy rey ay yéeféer. waaw loolu ci dundam dañ ko war dagg sax loolu dañ ko war a fàttali. dañ ko war di fàttali ko. léegi dama ci kese ci gaaw ni ma xam ndax li may wax nii am na tuuti. Eh, mën naa déglu. ci kenn si ñoom mu ne dafa joxe ay question waaw moom danaa ko laaj. question yi lan la. question yi noonu na maa ngi laaj ñëpp ne képp ku ma mën a indil ne ban bés lañ mës a màggal yonente si dundam mu ne ak ban bés la saaba yi mës daje dajee ne ñi ngi màggal yonente bi maanaam ñi ngi gàmmul yonente beneen bi mooy mu ne eh, ak ban bés waaw yooyu la laajoon ñetti question la benn bi mu ne ban bés la yonente mës a màggal boppam ak beneen bi mooy ban bés la la saaba yi mës wax ne ko màggal ak fan la yonente wax ne dañ ko fa màggal bés bi yonente fekk màggal boppam waaw mooy sahida laahu annahu laa ilaha illaa huwa wal malaayikatu bés boobu la yéen jëkk màggal boppam boppam keroog ba mu waxee sahida laahu doy na ma yàlla seet waaw keroog la yéen jëkk màggal boppam sahida laahu annahu laa ah, ilaha illaa huwa keroog waaw waaw waaw keroog la yéen jëkk màggal boppam ba mu waxee gars yi ne kenn ci yéen doy ma ku dul yàlla sahida laahu annahu laa ilaha illaa huwa sahida laahu doy na ma yàlla seet waaw annahu naka lay bittee mbir. waaw laa ilaha illa huwa amul benn buur bu ñu la jaamu ci dëkk moom moom yàlla moomu. yàlla moomu. wal malaayikatu ak seen malaayika yi. waaw doy nañ ma. xaaral boo óolu leen ne. waaw yaa ngi dégg. waaw ak borom xam-xam yi nga xam ne nga xam ne borom xam-xam yi nga xam ne yàllaa ma yónni ñooñu doy nañ ma. Mm. yaa ngi dégg. waaw kaa yi mën nga xis si te taxaw di maanu. dégg la. yaa ngi dégg. waaw noonu noonu. waaw keroog jour boobu. waaw keroog la yónni njëkk a màggal boppam. ndax keroog la leen wan ne. waaw doy loo doy yàlla yónni gi ma yónni. waaw te ma xam ne man la yónni. waaw <laughs> loolu doy na ma tey boo xamee ne yaay yaay di gën a tedd. waaw loolu doy na weesu na ma gasa ko. déedéet bu la bu la ñëpp wéjjee xam naa ne maay di gën a tedd wóor na ma ne man la yàlla yónni loolu mën naa weesu màggal sa bopp. loolu mënul weesu màggal sa bopp de. sahidallahu bay na ma seede ah. loolu laay alquran la. la laay alquran la. bi ñu beneen ñaareel bés bi ñaareel bi ko yàlla màggal mooy. Ah. wóoree naka la xalaat lu xasee nii. màggal la de loolu yàllaa ko màggal yonent bi. dëgg la loolu yàlla yàlla yonent màggal la ko moom. Ah, yàlla màggal na ko. Eh, léegi lu def. mu ne saxaaba yi fan lañ ko mos a màggalee. saxaaba yi bi ñu ko mos a màggalee mais kenn duñu wax kenn saxaaba bu ne. waaw ba nga waxee ashadu an laa ilaaha illallah. ma ah. la ci rek. wa ashadu anna muhammadan rasulullah. saxaaba bu ne màggal la yonent bi balaa muy gëm yàlla. allahu akbar cey GMTV international allahu akbar waaw nag waaw la min jàng yëpp nga taxaw ne yàlla kii la yónni loolu mën naa weesu màggal loolu mën ta weesu présentation mën naa gën a màgg kii ab yonent ab yàlla la man nangu naa ne kii ab yonent ab yàlla la kooku màggal mën naa weesu loolu màggal mën ta weesu ay dof lañ ay noonu yonent bi lañ sallallahu waa di dof yooyu mooy lan ay foog yonent ma sa màggale boppam xanaa jàngul Alxuraan loolu de leer na waa TikTok TikTok baa ngi TikTok baa ngi tëj fi mu toll nii de gars yi de fi nii ñu ngi ñu naaw. xam nga fan ndax mbégte. waxu dof la. c' est. amuñu xam-xam noonu yonent ba lañ dañuy bëgg woo bëgg yonent yi fekk ay noonam lañ. loolu kay noonu la. loolu noonu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg loolu kay kañaan la sax. xam nga na yàlla seede na laa ilaaha illaa huwa boo dégg ci Alxuraan. waaw yonent moo ko wax du yàlla daa xaskan boppam faddu yonentu mooy xaskan boppam yàlla yonentu mooy xaskan yàlla faddu ci jaar li giit di yàlla ne yonentu du xaskan yàlla faddu ci gëm-gëmi boppam dëgg ndax yonentu yàlla ngi teew ci moom waxtu wu nekk te moom ngi teew ci kanam yàlla waxtu wu nekk te yàlla mu ngi teew waxtu wu nekk loo xaskan boppam faddu dëgg la di yàlla ñoom la yàlla ñoom ñoo faddu yàlla ñoom ñoo ñoom la yàlla faddu ci ñoom waaye ñoom faddu wuñ ci yàlla hmm. moo tax sahid allahu doy na ma yàlla laa ilaha ah, annahu annahu naka lay bittee nit laa ilaha illa huwa amul benn but bu ñu la jàmm tudde kudut moom ndax ña ñamey wax gisuñ yàlla wéttuñ gëmuñ ko euh, waaw xam nga keroog bu ma lay wax gëm gis yàlla waxoon naa lan moo koy lan mooy gis yàlla lan mooy gis yàlla <laughs> lan mooy gis yàlla mukk tey eh. tey jotaay bi du gis yàlla. Eh. tey jotaay bi tawhid nga may waxtaan loo. ak ak gàmmu bi daa la bi daa. ba léegi tonton ku ma la ndax gàmmu bi daa la bi daa. teg ci logique tey yow. ci kan laay waxee yow waxuma yow xam-xam. tey wér na la wér yàlla na gàmmu gàmmu waxuma la sax bi daa la bi daa da ngay gis ne léegi gàmmu jaar na. gàmmu kay hidrol yi da ku deewul wa warul sa bët bu set ñu gàmm. waaw léegi su fekkee ne yow da nga bëgg a séparer yàlla ak yonent bi. bu boobaa mën ngaa nangu ne gàmmu war taxaw boo ko mënee rek boo ko nangoo rek loolu kenn mënu ko jeex na kon nooy na koy nooy def ndax jaam dina màggal borom bi ah jaam man na màggal fi ñu màggalee yàlla bàyyi yonent bi amul foo gis ñu tuddee yàlla bàyyi yonent bi gisuma foo gisee ñuy ñuy ñuy ñuy jublu yàlla war nga ne yonent ginnaaw amul de kon ku la sa xalal màggal yàlla naka la jublee màggal yonent bi ah kon nag gars yi dañoo nekk ci li leen neex de dañoo réer ñi dañoo réer li li nekk la de dañoo réer bés ba bés ba bés bés yonent waa TikTok bi waaw waaw waaw liiral ma message yi TikTok yi ma dégg. bésu gàmmu bés bi yow ma message yi naqar bi. waaw naqar la bi wax dëgg. Ah, ah dëgg wax dëgg de. waaw juddu juddu. juddu yëpp moom li lay wax de moo. demul la eh. waaw bésu juddu bi bésu naqar la de waaye naqar ci kan. naqar waaw ci kan. Iblis mooy kii laaj ah. naqar la ci Iblis ndax moo daane nguuram nga. bu ah, nguuram Kisra. Kisra moo ko daane. Iwaanu Kisra Iwaanu Kisra nguur ga wax nga. nguur ga yorantoo ko nar benn ko. la la la la géej ga ngees. Eh, safara safara fay. xam Seydina Omar ma doon gas jigéen di ko suul. waaw keroog la ko bax. ba loolu moo tax bés ba bésu naqar la ci waa kër Iblis. waaye waaye ci waa kër yàlla. waaw bés mbégte la. Euh, waaw. Cheikh ah Cheikh Omar Diop Cheikh. bés boobu moom li ngay tontu garaaw na. waaw bés boobu ki laaj laaj yoo xam ne bés bi bésu naqar la ci waa kër Iblis waaye ñu waa kër yàlla waaw déedéet bés métti la ndax keroog lañ gis leer ak yàlla gi keneen lañ gis dëgg waaw keneen lañ gis joom joo xam ne waaw bi ko alimatu sahadiya mu ne waaw ba mu ko xoole waaw leer ak génn ci gémmiñ nga jëm xasamaan keroog la xasamaan bég keroog la jant bi fekki keroog la weer bi fekki keroog la kaaba bi fekki keroog la abdo jaar bi gën a bon yaa ngi dégg jël gëneel jaamam la ila illa yaa may dégg waaw kon xam nga ne waa kër Iblis. waaw keroog bés boobu mu doon seen bésu naqar waaye jullit ñi ñoom bés boobu mu doon seen bésu métti. ca allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam <laughs> dëgg la de loolu mooy naqar dëgg dëgg. waaw boobu la yëg boobu Iblis yàqu de. boobu la nguuram daanu. boobu la mag bi ñëw na ki kuy fekk na mu ngay lëmbe. laa sallallahu alayhi wa sallam laa muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah ki bi de dégg nga sa tontu mooy bésu naqar la waaye naqar la si ñun. waa kër Iblis waaye du naqar si ñun du naqar si jullit ñi ne daal bis juddu ga la ñuy màggal. he macha allah sëriñ bi de tontu bi si xel mm. leer te borom xel yi. li yàlla wax yow te dégg nañ ko ndax daa imaam wa sarmadal war nañ di màggal yonent mm-hmm. bu dee waaye laa nga ko ci xam-xam de waaw ah. ndax sayyidallaahu annahu laa ilaaha illaa huwa wal malaaikatu ulul ilmi ah. qaa'iman bil qist ah. loolu laayam alquran la te xam-xam mënut a jéggi alquran kon daanaka yow xaw nga laal ak laal nga daanaka yow wa kullan naqsu min anbaa'i wa kullan naqsu alayka min anbaa'i rusuli maa nusabbitu bihi fu'aadaka laayam alquran la bàyyi bàyyi loolu la wax bu ñuy topp gars yi ci gàmm ne leen yàlla wax na yonent saa ne ko xaay ma nettali la histoire gars yi la jiitu woon ngir nga dëgëralee ko sa xol ci gëm yàlla waaw mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nettali Iisa waaw nettali Muusa waaw nettali Ibrahima waaw Daawuda waaw Suleymaan waaw Isma euh, Ishaqa Ishaqa Yaaqooba Yuusufa Yunus waaw Ibrahima Ibrahima Idrisa Yunus Adama Hóot Hóot Lóot bari Adama ñooñu ñëpp dee nettali ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dina dëgëral gëm yàlla yonent bi waaw mu ne yonent bi gën a mat waaw bu ñu yàlla mayee tawfiix indi ñu alxuraan mu ñuy nettali yonent boobu waaw kon ñun bu ñu nettalee yonent bi dundam suñ di suñ xol la yàlla may si ngëm yàlla gis nga ko kon julit bi ñu nettali ko xis sa yonent yàlla moom saa salaam daal moo xoolee farata bu yàgg laaj bu yàgg ko kon ñi dañoo nekk saa salaam ko ci lañ ne lii kay xeex la lii noonu dëgg dëgg dëgg dëgg la. waaw ah, koo xam ne yow yow yow yow ñu nga xam ne doo tus. waaw bëgg nga foo defee conférence. ba boo ko ñu ne neexoon na. waaw waaw. loolu du fàttaliku. loolu fàttaliku la de. fàttaliku la conférence boo xam ne du sunna du dara. waaw fëyee nga laal ko fa def. waaw te bëgg nga foo ko laal la ñu ne neexoon na. waaw xoote bi nañ bi yëpp ñu ne bëgg ko fàttaliku. Eh, eh, loolu nga ñam. ñii nag lii leer na de lii leer na de lii leer na naññ nañ naññ nañ naññ naññ dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg taw yi leer na gàmmu yi de leer na dama xam loo ñuy indi ci xam-xam nag waaye nag xam-xam bu jéggi Alxuraan moom gis moom te sahidallaahu annahu laa ilaaha waaye sahidallaahu sëriñ bi sëriñ man sahidallaahu maa ngi doo ko dégg nga firi firiñ bu mel nii mais gars yi dañ waaye yàlla seede na rek déedéet na malaayka yi. seede na borom xam-xam yi. dégg nga yonentu yonentu saa moom lañ doon weddi. waaw muy waxee ne ne leen man. ñeen gëm ma ñeen weddi ma bokk xem ci man ndax yàlla man seede na man ma yonentullah. boo tax ma ne sahida doy na ma seede allahu yàlla. waaw yàlla doy na ma seede. annahu naka lay mbittay mbitt. waaw laa ilaha illa huwa amul benn but bu ñuy jaamu ci dëkkul yàlla. waaw wal malaayikatu ma lay xamal ne sahida gi yàlla la ko ak malaayika yi ak malaayika yi seede wuñ ne yàlla moo yor yonent bi boo ulul xel mi bu ulul xel mi booba mooy ñi gëm yàlla ak yonent bi ñooñu ñoo xamoon ne yonent bi yàlla yónni na ko ñooñu ñoo borom xam-xam yi ñooñu borom xam-xam yi ñooñu mooy ulul xel mi xaa iman bi xis ñu ngi taxaw ci maanu ñax ci maanu lañ xamee ne yonent bii yonent yàlla la seede nañ ko ci dëgg waaw ñooñu xaa iman bi xis la ci topp annahu la qaa'iman bil qist wal malaa'ika ulul xel mi qaa'iman bil qist annahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim dégg nga seet tet tet tet tet tet loolu mooy sahidallaahu sahidallaahu macha allah leer na sahidallaahu boo waxee ne seede dana yàlla déedéet yàlla lu muy doy na ma seede yàlla ngay wax doy na ma yàlla loolu yonent da ko wax sallallahu alayhi wa sallam kon nag gars yi xam ngeen ne gàmm dëgg-dëgg liñ ci gars yi di wax seen waxu bopp la rek ak nekk ci li leen neex ak réeraange gu ëpp mais lii sëriñ bi leeral nii leer na rek léegi dañuy dem ci waa TikTok yi ak waa Facebook ak waa YouTube. ñu may leen di cinq minutes su ko defee. Euh, euh, euh, yow yow TikTok laaj. nga liiral ni message yi sëriñ bi liiral leen sëriñ bi tontu leen balaa ñuy. di ngeen jëlaat ndax temps bi ñu ngi allah. nee dëgg rek nga fi wax. dégg dëgg. Mhm. ndeysaan. mais macha allah Cheikh am na solo jërëjëf Diop. Mhm. foofu lañ foofu lañ toll ko. macha allah YouTube bi. YouTube yéen waa YouTube di ngeen wax yéen waa TikTok yéen waa YouTube yéen waa Facebook yéen ñëpp na ngeen eh, na ngeen na ngeen abonné si euh, euh, GMTV international euh, jotaay bi day day day yeneen i borom yi xam-xam macha allah yu kawe ñi ngi ñëw ak seen i xam-xam yu am solo sëriñ bi it dina ñëw si ay yeneeni i dégg nga laaj ak yeneen i thèmes yoo xam ne incha allah waa GMTV international di leen ko si dalal. pour pour pour mu leeralal ko jaam yàlla yi comme nii ndax kat Cheikh Omar Diop taw euh, Cheikhu tawféex la si jaam yàlla yi de macha allah leeral yi wër nañ ko fu ne de taw yi ku ne dugg na fu ne waaye dugg na fa waaw youtube ñu ne mu ne kañ ngee def émission firi gént firi gént sax prochaine émission incha allah. dinañ leen ñëwal ci li nga xam ne mooy firi gént incha allah. ñu koy def ñëpp euh, nañ dem nag ci euh, te euh, fële GMTV. nañ dem abonné foofu incha allah annonce yëpp dana fa dugg bu soobee yàlla. macha allah sëriñ bi leeral yi am na solo yal na yàlla yokk say leer fii kulli lahzatin. amiin. waaw ñoom foofu lañ tollagoon tamit si laaj. macha allah macha allah. macha allah waa sëriñ bi nag balaa ñu yëkkati jotaay bi danaa laaj nag benn question boo xam ne moom la ñu yëkkatee jotaay bi ndax macha allah gis nañ euh, kii bi mais toog nañ gis nañ nga toog di yàgg daanaka xam ne gisuñ nga def benn direct def man mii xam ne nii sax ñoo doon bokk di toog di def jotaay bi man dama ko namoon a nam ma nam ma nam ma nam ma nam ma nam ma damaa dem ba commencé sama bopp di ma réer ndax ni ma daan feeñee si xam-xam bi nga xam ne moom mu ngay wax Euh, dëñ boobu moom lan moo ko waral beneen bi mu ne kii nee na bëgg na jël numéro sëñ bi ndax hmm. moom dafa bëgg sëñ bi si boppam jox ko wér incha allah day ñëw day kii dafay 78 78 162 162 64 64 78 162 64 64 moom mooy moom mooy numéro téléphone sëriñ bi mi ngi dëkk Yoff APEXI 2 si gannaaw miiru armée bi incha allah boo ñëwee foofu boo ko woowee si numéro téléphone 78 162 64 64 rek incha allah dina la di nga di nga ko jëm même am na whatsapp aussi. kii mu ne lu tax yonent yëpp duñu ay maxsum. ci kanam yàlla duñu ay maxsum mais ci kanam jaam yi ay maxsum ne macha allah. ñu ngi ci ñu ngi ci. ñu mooy la doon wax sànq ci bi mooy lancé ah. lii am na solo. te ah, lii am na solo macha allah si si tontu yi lii dafa lënt nit ñi de. waaw a ji mu ngi wax ne juróomi. waaw cinq moo si si temps bi. laaj yu bëri ñu ngi ñu ngi ñëwaat ci lu waral ah. nee nga ñëw waaw leer seexu seexu bi dafa war a leer. waaw seexu seexu bi jinne yi ñoom xam nañ ñoom ñoom tur woowu lañ may oyee seexu jinne yi ñoo ko waral tur seexu bi jinne yi ñoo ko waral. jinne yi ñoom ñoo ñoom ñoo lay woowee seexu. seexu waaw. Ah, mooy turu tur boobu mooy turu turu turu turu turu. turu ci jinne yi turu waaw turu ci jinne yi. ok allah loolu de beneen mbir la. loolu moom danañ si ñëw émission boo xam émission jinne yi lay doon. incha allah loolu incha allah. Euh, ñu ngi may wax ne nag cinq minutes moom moo des ci li xam moom mooy émission bi mais cinq minutes yooyu sëriñ bi euh, gis nañ euh, tëju bi laa doon wax tëju bi bu yàgg boobu nga ñëwal ñu si lan moo waaw man nit laa koo xam ne mm-hmm. dama ambitieux mm-hmm. dama bëgg avancé mm-hmm. dama bëgg tout le temps di def lu baax te di jéem a jàll ci kanam bu fekkee ne da nga nekk ci réew. Hmm. bokk ci réew mi. Hmm. da nga war a def luy doxal réew mi. dëgg la waaye toog rek du sottal dara. loolu moo waral nag alhamdulilah rabbil alamin. jëm hmm. jamono bi yëpp. ñu nekk ci. doon gëstu. di yëngatu. ci ay mbir yu bari. Euh, mu nekk tey fan yi dañ doon yëngatu ci benn télévision. bu ñuy wax Fayda Baye TV international. international dëgg la. li gis ne xarala bi. Hmm. pays la boo xam ne. Hmm. pays bu am xam-xam. Hmm. liggéey bàyyi na bàyyi Cheikh Ibrahima Niass liggéey ci àddina bi. liggéey yu am solo la. àddina yëpp wax nañ ko xam. naam àddina xam nañ ko. waaye di wane mbiri Cheikh Ibrahim ci àddina nit ñi ci jàngee. dafa nekk lu war. moo ma initié wu. initiative boobu nag. moo waraloon ñu tëju woon doon ci concentré wu ci xalaat ci liggéey. ba tey alhamdulilah rabbil alamin yàlla def ci tawféex mm-hmm. euh, loolu moo waraloon tëju bi mm-hmm. ndax am na yenn yoo xam ne ci nekkee mm-hmm. du doo doo am jot dëgg la te foo ma bàyyi dara def dara dëgg la loolu moo ko indi woon GMTV bi euh, dalal ma tey tamit euh, bokk na ci dëgg la ñu bokk nekk ci Sénégal di ci yëngatu di bëgg lu jëmale Sénégal kanam di bëgg. Hmm. wan Sénégalais yi ne leen seen alal bi ngeen am. Hmm. métier bi ngeen am. Hmm. da ngeen ngeen investir ci réew mi. état Sénégal comme gis ngay góorgóorlu na la waaw fekk la sa kër mu dimbale la au lieu mu xoqatal la au lieu mu tiital la. loolu mooy tax semence bi dañ. dëgg la loolu mooy tax ñàkk gi dañ. loolu mooy tax alal alal ji Sénégal am man ko jëriñoo. dëgg waaye ku ñu gis ngay jéemantuñ damm la. kuñ gis ñuy jéemantu ñu teg la loo attanul mm-hmm. mooy waral nit ñi buñ amee seen alal denc ko mm-hmm. mooy waral kenn dimbale kenn dëgg la man nag comme yàlla dogal na man mm-hmm. yarekat la moo tax tout le temps damay bëgg wan jeunesse bi na leen y a pas de sous sous métier sous métier waaye euh, il n'est jamais trop tard dara dara rombul dara rombul dara rombul nit da ngay am courage nit da ngay am fit nit da ngay oser mais nag après ça. Hmm. nga jël l'homme qu'il faut à la place qu'il dëgg la. c'est à cause de ça que j'ai amené les caméramans. Hmm. les techniciens. Hmm. tout ça ñi nga xam ne seen domaine la. ma bàyyi leen ku nekk mu exercer domaine am. dëgg la man li ma mënee ma nekk ca. ñoom lañ mën a ñu nekk ca. dëgg la Sénégal jëm kanam. dëgg la parce que suñ ko defut. du dem. léegi nag Fayda Baye TV. Euh, pays bi yëpp ñu ngi koy seetaan. dëgg la. képp koo xam ne. Mhm. bëgg nga am. Mhm. télévision bi ci sa téléphone. Mhm. whatsapp. mooy 78. 547 14 14. boo ci envoyé benn message. ñu envoyé la lien bi. Fayda Baye TV nga seetaan ko ci sa téléphone. bu la neexee abonné YouTube. bu la neexee bañ a YouTube man du ma kenn ci abonné fii wala abonné fa. en tout cas boo abonné. lañ fay wane ci xam-xam ak yaa koy seetaan. dëgg la ndax léegi amoon maa yi dégg naa dafa am njëriñ. Hmm. ci YouTube yeeg yooyu. waaye képp maa ngi wax Sénégal yi. waaw képp kuy xaar am amul YouTube. waaw xamal ne pare woo pour tekki. ah. képp kuy xaar am amul YouTube pare pour tekki. am lu tax amul benn njariñ tekki fii la fii. am na ñoo xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi fërti fërti guddeeg bëccëg amatuñu xalaat amatuñu gis-gis amatuñu benn idée. waaw lu dul ay abonnement mhm. pour ñu abonné la YouTube. seen addina yëpp ñu ngi ko def abonné YouTube. mais genn wàllu population ak xuma Sénégal mais addina bi. léegi loolu ma la wax moo tax ñëpp gis addina bi ñu amee crise bu mag sax parce que léegi xel yëpp lañ tëj ñu bokk benn gisin lu baaxul. eh loolu dañ loolu danañ la si dalal. loolu man man yàlla may na ma xam-xam ci ci fànn yi. loolu dañ ciy man gëstukat laa. ba pare wëbatiku yàlla may na ma tawfiix ci yenn yu mel nii am naa ci ay solution. donc loolu mën nañ ci waxtaan ak beneen nañ ci waxtaan mais li ma leen xamal daal mooy YouTube bi. waaw pour ñi division bi passé. waaw ñu daan kàr ko foofu loolu la woon. léegi nag ñu commencé dem ba di ko commercialiser ba gars yi di ko am am dara. waaye loolu moo waral ñu bloqué woo. Euh, blocage bi foofu la. mais ñi am ñi am dara xam dara. yow waaw duñ mukk jamais ñu toog jël seen bopp di ko rey ci ci ci ci ma YouTube non non. loolu dañ ci def waxtaan. loolu dañ ci def waxtaan. loolu dañ ci def waxtaan. mën nga def sa liggéey loolu ñëwal la ba loolu dab la ba loolu kii la amul benn problème. mais mais am am nañu ciy fayam ay millions. waaw buñ la déggee ngay wax dañ naan non il comprend rien. non non j'ai bien compris xam naa lu bëri. moo tax ma ne dinañ si xam naa lu bëri xam naa ne mu ngi fay xam naa ne YouTube mu ngi fay xaalis bu bëri xam naa ko dama si bañ a naa ne mu ngi fay xaalis bu bëri mais bu ñu xamoon ne ki ñuy fay xaalis boobu waaw suñ xamoon moom lu mu mën a gañee bu fekkoon mu ngi concentré wu ci boppam waaw war na yàlla du passé temps ci YouTube allahu akbar parce que intelligence yi tolloowuñu réflexion yi tolloowuñu vision yi tolloowuñu. vision yi tolloowuñu waaw man fi may waxee boobu bu ñu toogee débat mën naa la wan ay solution loolu dañ ciy ñëw incha allah incha allah kon daal tëju bi loolu moo ko waraloon. moo ko waraloon euh, Fayda Baye TV moo waraloon tëju bi. Mm-hmm. Fayda Baye TV alhamdulilah rabbil alamin yàlla def na léegi gaa yi ñu ngi koy seetaan ci seen mm-hmm. téléphone. Mm-hmm. Euh, ñu ngi koy commencé seetaan ci yenn réseau yi. dafa war a daj àddina yëpp. ñu xam ne ci tàmbali la tàmbali la. garab buñ ko jiyee. dañ koy suuxat. dëgg la mu màgg. dëgg la am reen. ndax mu mën a sax man noonu lay liggéey. dëgg la je suis pas pressé. lentement sûrement noonu laay demee. dëgg la fi ma egg nii ci àddina. àgg naa ko te amul bruit. dëgg la kenn mënumaa mesurer. dëgg la kenn mënumaa à peu près. dëgg la léegoo léegi ñu dégg ma def lu rëy. lu borom doole yi am bruit yi mag yi di def. te maa koy def na tekk. dëgg la kon damay jàngal nit ñi ne leen. soxlawul bruit bi. dëgg la te loo bëgg a def war nga ko mën a def. macha allah loolu bu ko def war nga ko mën a def eh, eh, ñu ngi may wax ne temps bi daanaka jeex na waaye nag di wax ñëpp ne leen dégg ngeen waxtaan bi ak eh, Cheikh Omar Diop ci xam-xam bu am solo bi nga xam ne mu ngi ko doon mu ngi ko doon wax ci tawhid ak li nga xam moom mooy gàmm ak tëju bi nga xam ne nii ñi ko doon ci ñi koy seetaan ci fi nga xam ne moom mooy seenam ñi nga xam ne ñu ko fi doon seetaanee Euh, ñooñu ñooñu ñëpp namoon nañ ko waaye lii moo waraloon tëju bi mooy gis nga ko télé yi bi nga xam ne moom mooy Fayda Baye TV international di invité ñëpp foofu aussi ci xam-xam yu am solo yoo xam ne ni Fayda Baye. TV moom borom xam-xam yi ñoo koy ñëw. borom xam-xam yi man taalibe laa ma léegi kenn gisuma ah fay daal ñoo na leen liifantu. allahu <laughs> xam naa ne ñëpp it woon nañ ko. waaw ah, ñuy wax gars yi mm-hmm. allah télé bi moo tax ñu bari dëgg la ñu ngi may bàyyi xel ñu ngi may déglu. Uh-huh. Euh, dañ xam ne ñu danañ egg ci ñoom. incha allah waaye ci yoon wi la mm-hmm. aw ndaxte la ci programme lay dox. dëgg la euh, man nag euh, ku nekk sa domaine. Mm-hmm. moom nga moom yi ñoom nag comme ñoo moom seen domaine ñoo xam ne ñu doxale dëgg ñu ngi doxal seen programme maa ngi topp seen ginnaaw di leen diglu incha allah fu ñu ci war a egg dañ fi egg incha allah keroog ñu egg ci xalifa bi toog kiroon mu ñaanal ñu yàlla incha allah ko def incha ah, ah, eh, leen wax ne gàmmu jot na rendez-vous jot na ku ci mm-hmm. am sa judd yaa ngi koy bàyyi xel mm-hmm. kon nag suñu waaja moo ñëw juddom mm-hmm. ba suñu waay suñu waayu waaja Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu Septembre dëgg la bësam ba. Mhm. weeram wa. Mhm. waxtoom wa. Mhm. jot na. rendez-vous bi Kaolack la. dëgg la ñu fexe gàmmu ji ñun ñëpp. amut lay amul aw ma paas. te waxuma kuy am paas waaye nag nañ ku nekk fexee ut kaar. yóbbu nit ñi. dëgg la ñu dem gàmmu ji. dëgg te bu ñu demee tamit nañ yóbbaale taraanga yi. nañ yóbbaale naan ya. nañ yóbbaale lekk ya. ndax su ko defee gàmmu gu neex. ndax gàmmu benn. bés wala benn mhm. ga benn jotaay. Mhm. gën te neex euh, juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu bés yi nañ ko fàtte te jublu bés ba. Mhm. Euh, di oo gaa yi rendez-vous di ñaan yàlla. ñëpp dem ci jàmm. ñëw ci jàmm. yàlla aar nit ñi ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm. accident yàlla ñu ci yàlla musal musal ci njaboot gi yëpp musal ci mboolem kuy gàmm ñi ak kuy kuy kuy kuy kuy dem ci jàmm ñëw ci jàmm Sénégal yàlla dina fi ñàkk gi Afrique yàlla dina fi ñàkk ñàkk gi addina bi yàlla nekk yàlla ko yàlla teg gi yàlla na yàlla xiir nit ñi ci bëgg yonent bi saasara bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu jàmm yàlla fi yàlla jàmm yàlla fi yàlla jàmm yàlla may ñu sutura ak teraanga ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Seydina Mathias Sëriñ Diourna Anu ak Cheikh Ibrahim Niass di nuyu mboolem njabootu mboolem Cheikh Ibrahim Niass gi yëpp di mboolem taalibu Baye eh, di la gërëm yow fàttali mi yow mi ma doon dalal suñu plateau la waaye tey moom dañ koy nangu plateau yooyu dañ koy nangu si gars waa TikTok waa Facebook waa YouTube. MTC waa MTC. GMTV day nangu day nangu. day nangu jotaay bi day nangu jotaay bi. waaw ah, incha allah loolu yaakaar naa ko waaye nag nañu naxante ñoom rek. incha allah bañ nangul ñu ko ndax ñoom ñoom moom yëf yi. dëgg la seen alal dëgg la macha allah macha allah macha ñi ngi ñu ngi ñu ngi am mbégte bu baax ci eh, dalal ki nga xam ne moom mooy moom mooy eh, Cheikh Omar Cheikh Omar Diop. sama micro moo fay wala micro moo fay. mu jox ma tëj. Eh, waaw ma ne ñu ngi ñaanal mboolem mbindeef yàlla yëpp. Mm-hmm. ñu ngi ñaanal Sénégal yëpp. ñu ngi mm-hmm. ñaanal addina bi yëpp. ñu ngi ñaanal réew mi jàmm. Mm-hmm. gàmm gi ñu ngi joxe rendez-vous gàmm. gàmm ga. Eh, eh, mooy wane ne ñu ngi wane ne. gàmm jot na. dëgg la. yaa ngi dégg ah. waaw gàmmu yegsi na mm-hmm. ñu ngi ñu ngi yegg ñu ngi ñu ngi war a waaj ñun ñëpp dem gàmmu mm-hmm. Euh, nañ jënd naan yi neex yi lekk yi neex yi fruits yi yëpp nañ ko préparé mhm. ñu fexee dem teral gan yonent bi salaa salaam mhm. ñoo xam ne gàmm gi pour la ñu ngi ñëpp mi dina bàyyi incha allah di wax ne Fayda Baye TV incha allah mhm. dina dina nekk foofu incha allah euh, liggéeyal pays bi liggéeyal fayda bi incha allah fas yéene nañ liggéey Cheikh Ibrahima Niass mu mën a nekk rek fu waaye mën a nekk ñu fekk la fa incha allah aywa ma ngi noonu mu nekkoon seen émission euh, xam-xam ci GMTV euh, international ngeen ko doon am aussi ci fi nga xam moom mooy euh, TikTok Cheikh Omar Diop Cheikhou ak fi nga xam mooy YouTube médecine tradipraticien Cheikh Omar Diop ak fi nga xam moom mooy Facebook Cheikh Omar Diop di am mbégte bu baax nag ci yi nga xam ne ni sëriñ bi indi na ko créer ko Sénégal peuple Sénégal nga xam ne toujours ñu ngi koy gis ci mi ngi def ay effort ci li nga xam ne moom mooy économie gu Sénégal toujours mu ngi ciy participer gis nañ li nga xam ne moom mooy boutique am yi muy bio naturel yi nga xam ne créé na ko macha allah ñëpp ñu ngi ciy yëngatu di si suturlu te loolu sénégalais bu nekk bu ko defee rek dana amal njëriñ li nga xam ne moom mooy Sénégal kon ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen numéro ak ci beneen jotaay ak ci beneen borom xam ci fi nga xam moom mooy GMTV international ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm comme ni ko sëriñ bi ñaan di wax amin ci ñaan yi di dox eh, di jox nit ñi di daje fi nga xam moom mooy Medina Baye ngeen ànd ak GMTV ànd aussi ak fi nga xam ne moom mooy Fayda Baye TV international di bàyyi tele yi moom it di télé boo xam ne mooy liggéeyal li nga xam ne mooy pays bi mooy liggéeyal Mawlana Cheikh al Islam mm-hmm. wa ma zalika ala llahi bi aziz wa salaamu wa taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf waaw loolu dese woon na la beneen sëbin sëbin na ah tëb bi waaye des na beneen sëbin. ah sa sa sa émission